eyes of

di dellusiwaat ci suñu ëtt bi nga xam ne fi la daje saa su ne di fi yëkkati suñuy kàddu e, di wax ci xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci réew mi dañu bokk ko ñu jàpp ne kenn ku ci nekk war nga cee am sa xalaat ak sa xam-xam la nga ca xam mu wér la ak la nga ca xalaat indi ko gar ko ci ëtt bi tek ko fi bokk ko ñi nga bokkal réew mi ba ñi ci wara gindiku ci ñi ci am ay sekk sàkk ñu mën am lu ñu téye ba dem gëstu ji waat akit ku ci wara wax wax ci ndax am réew benn nit du ko defar ñaari nit du ko defar mbooloo mu takku mu jub mu dëggu mu bëgg am réewam moo koy defar di leen nuyu yéen ñëpp rek yéen ñëpp ma leen a benn bennal ngeen jégal ma maa ngi gis nu yooyu waaye euh, ku su ma leen tontuwul it xam leen ne euh, nuyoo naa leen ci sama xol nuyu naa leen ci sama xel nuyoob xol ak nuyoob xel bokkul ak nuyoob làmmiñ kon ku ma ci wax tudd ma tudd la ak ma ñàkk laa tudd képp ku ma ci nuyu yëg-yëg bi nga am ba nuyu ma xamal ne am naa boobu yëg-yëg ba fay la te nuyu la ci xol ak ci xel ngir bañ a live bi gudd moo tax duma tontu nuyoo yi ak benn bennal waaye jàpp leen ne yéen ñëpp rek boole naa leen maas yónne leen ab nuyoo loolu ci aada yi la bokk nuyoo aada yi Sénégal ju baree bare bare bi ma nekkee tout tànk ma waajuru góor moom ma masaana xëy damay xëy di nuyoo mu ne ma lu tax ngay nuyoo ma a damaa gis kat sama masaana dem sama kër maam bu ñu yeewoo dañuy nuyoo su ma demee ci yeeni kër yi ma gisee ñu ñëpp di yeewoo mu nuyoo mu ne ma nag fii sama kër sama waajur bu bu moo fi gisati kenn di xëy di nuyoo mu ne ma nuyoo yu bari am yambara koy def yambar yambar bu deful dara muy xëy di nuyoo ko yu kenn xamul nee na góor de teel xëy buy jàngi mu teel jàngi buy liggéey mu teel a liggéey waaye xëy yeewu ci ab kër yeewoo ndoo fa ak ay nit yoo xam ne yéen a bokk biig reer bool bi ngeen bokk reer yéen a ko bokk reer mu ngeen ko nekk serviteurs yi ngeen xëy du ñeen ñi sax yaa ngi ñoomay bokk néeg bi da ngeen bokk néeg bi fanaan bokk lal bi nga yeewu nga nga nuyu ko mu nuyu la ngeen di nuyoon te yéen a bokk fanaan de ngeen yeewu di nuyoonte mu ne ma jooju aada xuma fan la ko Sénégal yi jëlee waaye man Sénégal yi jaaxal nañu ama waajur réew mu tardé réew mi nit ñi war a gaaw yow ca fajar daw jéggante daw nekk ca waaree ndax réew mi soqaliku ñu toog di nuyoon te nuyoo bi du jeex de moo tax tàmmuma nuyoo man ndax loolu lañ ma yar gaaw rek taf acca acca acca amuñ jot nit koo gëj a gis nit ko la seet si nit koo dem seeti nit koo dajeel nit koo gëj a gis man ngeena a nuyoonte waaye koo xam ne benn lal bi yéen a ko bokk fanaan yéen a bokk reer bi nga yeewu mu yeewu nga xool ko mu xool la nga salaamaaleykum réew du ñu dem yooyu yëpp ay aada yoo xam ne dañu ko dindi sànni ci àll ba ah man boo kenn yarewu ma ci loolu moom de sama samay waajur da koo teel a génn ci man dama am yambaree nekk du ñuyoo temps bi ngay perte ci nuyoo lu ngee di nuyoo nuyoo dafa am fu mu waree am fu mu waaye am na ci kër yoo xam ne tey ji boo fa yeewoo te nuyoo woo tey nga dee teguñu ko fenn kooy ki ne woon sëcc ne ko lii fan ngeen ko jële ji aada aada yeewu ñëpp bokk génn kër yeewoon yeewoondoo ku nekk nuyu sa morom ku nekk nuyu sa morom jooju aada foofu fan la jóge fan diine ko digle wala lan moo ko digle fan la jóge cosaan li kenn mënu la ko nettali toppandoo mii ma rek moo tax ma ne réewum réewum làppato la réewum làppato la i toppandoo rek réewum réewum kon lii tax ñu woote tey mooy gone yu ndaw yooyee nga xam ne tey ñoo juddu ci seen i biir ndey mënuñoo ñibbi ak seen i ndey seen ndey nàmpal leen ñu mën a màgg ba mel na ñun ñoom ñoo judd am ay tolof tolof ñu téye leen ca hôpital li ngeen tuddee hôpital téye leen fa ngir ñu mën a jekkandi ba mën a dem fekk seeni i ndey nàmp màgg taxaw kon ñun ni ñu taxawee ngir sàmm réew mi ñoom ñooñee ñoo dee ca lakk ba xëm ay liir yu tooy xepp xepp xepp xepp ñoo lakk ba tooy ba xëm a xëm a lakk ba xëm lañu def duñ kukk loolu mooy li réew mi yëpp moom la ñuy waxtaane fi mu toll réew mi yëpp adduna bi yëpp moom la ñuy waxtaan waaye da fàtte ne amoon na fi daaw ci waxtu wi hôpital ba ca Linguère ñeent fa deewoon ay liiru tooy xepp ñetti fan ngeen ci coow delu ci la ngeen nekkoon lii tamit ñetti fan ngeen ci coow delu ci la ngeen nekkoon du mujj fenn kenn ku nekk yaa ngi bëtt sa bët di jooy ñii di ñaan ñii di wax kenn ku ñaxt loola mooy li jaadu ci ku xam làppato yi làppato yi ñoom ñaxtu rek ak émotion ndeysaan yëg-yëg ah ñoom ci yëg-yëg la ñuy dox bu musiba amee ndeysaan dañuy bët seeni bët di jooy wala ñu ana yàlla suñu yàlla ji yàlla suñu yàlla ji soxor ji nga xam ne moom dong la fi nekk néeg ji mu néeg billaay suñ yàlla ji moo néeg yéen yàlla ji lay wax yéen de bokkuma ak yéen yàlla yéen yàlla ji defee bu ñu ñëwee lakk néew yi ba néew yi xëm néew yi ba néew yi xëm seen yàlla ji moom day fekk lu mat fukki néew ak fukki fukki liir yu ak yu topp yoo xam ne ndeysaan mënaguñoo nàmp ak seen ndey seen yàlla ji yéen bokkuma ak yéen yàlla nag mooy dugg ci hôpital ba lakk leen ba ñu xëm yéen yàlla jooy mooy kooku mooy yàlla seytaane yi waaw les kazaar le dieu des kazaar le jëdee kazar ah le jëdee kazar le jë bal baal boobee yéen yàlla yooyu ngeen am seen yéen seen yàlla dafa soxor day rayaate seen yalla day accident seen yalla day hôpital du am dara seen yàlla da lay ndóolloo seen yàlla yow yéen subhanallah sama yalla ji ma leen bëgg a indil nag da ngeen ne lànk ne gëmu leen ko bëggu leen ko waaw alquran ji yalla bi nga xam ne moo muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yàlla jooju bëggu leen ko yéen yàlla ji ngeen am da am ay nit ñu baax am ay mag ñu baax mag ñu baax ñooñu di jur ñu baax ñu baax ñooñu di jur ñu baax ñooñu ñu jur ñuy jur ñu baax seeni doom yi di baax daa iman yéen yàlla ngeen am man uma jooju yàlla de man yàlla ji ma am mooy yàlla ji yónne woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam génne ko ca Abdallah bu bokk ca Quraysh nga xam ne Abu Lahab ba nga xam ne mbokkam la na ko yàlla rëbbee ci alquran yàlla joojee mooy fekk lu lëndëm mu génne fa leer mooy fekk leer mu folo fa lëndëm yàlla joojee nga xam ne mooy yàllay alquran yàlla joojee nga xam ne mooy yónni woon muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi tëkku abu lahab tabbat yada abi lahab wa tabba maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab yàlla joojee man mooy sama yàlla bokkul ak seen yàlla ji yéen seen yàlla moom day sàkk nit baaxal ko doomi nit kookee baax doomi kookee tamit ñëw baax seeni doom di baax daa iman yéen seen yàlla moom dafa am benn taxawaay ku da bu baax ku bon da ngay bon daa iman loo jur day bon yéen seen yàlla joojee bokkuma ak yéen yàlla lakum diinukum waliya diin jooju yàlla di wax ci qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa abudu maa taabuduna da ngeen yaakaar ne yàlla yéefar yooyu mu wax yéen yéefar la ah yéefar yàlla wax da ngeen yaakaar da ngeen yaakaar yéen yàlla yéen bu ngeen déggee yéefar yéefar yaa ngi seen tànk yi yéefar yaa ngi seen biir ngeen bokk ñoom dal di nelaw ko yeewu yor seen sant yi nuróog bokk ñoom bokk yéen ay deret yéefar yaa ngi suñu biir yéefar yi nekkuñu nasaraan yi de yéefar yaa ngi ci biir Sénégal duñu fi jeex <laughs> subhanallah du ngeen ay nit du ngeen ay nit musu nekk moo ko billahi wallahi watalaahi lii may xeex da ngeen ma ci fekk tey wala suba wala gannaaw suba ba ma ko tàmbalee ba léegi bougé wu ma mètre cooy bari jéem ngeen lu ne xoqatal ngeen ma boole ngeen maag jaxase ngeen maag sëriñ ci nekk ci réew mi yëpp taalibe yi kenn ku ci nekk yàlla moo ma téye ku ma laal yàlla dal ci sa ko te ba keroog jant bi wàcc da ngeen ma fekk ñi nar a texe ñi nar a am ngërëmal yàlla ñi nar a tekki fii ak fële yéen ñëpp da ngeen ma fekk képp ko àndul ak man ci li may xeex boo tax yàlla yàlla dala duma mënoo ci dara ndax mënoo jéggi lii may wax mënoo am lu ko gën a nekk dëgg ci yàlla lii may xeex mënoo am xeex bu ko gën a kawe ca yàlla wallahi alazim amul man nga maa ëpp daraja nag am sant bu xam ne prêt à porter la dañ koy ñëw ca tailleur ba bokkul ak balu fugu jaay santu balu fugu jaay laa yor de waaye yàlla xàmmeewul santu balu fugu jaay ak santu prêt à porter bu ko xàmmee woon du génn sang bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko génne ci xeet woo xam ne am na ci ñoom ñu bari dañ leen a rëbb waaw isa am na imaam yoo xam ne safara lañ jëm yuxrijul layla fi nnahaar wa yuxrijul nahaara fi layl yuxrijul xayya min al mayit wa yuxrijul kooku mooy kan kooku mooy sama yàlla man bokkul ak seen yàlla de man sama yàlla ji ma am moom man sama yàlla sama yàlla day luxus sama yàlla bu ko neexee mel lu ko neex sama yàlla day dugg fii génn fee sama yàlla joo xam ne yàlla la joo xam ne kenn mënu koo pee ko neex lay génn lu ko neex lay def ndax lépp moom la ñeel yàlla jooju laa xam yéen nag seen dafa taxaw seen yàlla yàllay bant la dafa taxaw bu bindee nit nit kooku day baax lépp lu meññ ci moom day baax bu bindee nit mu bon lépp lu meññ ci moom day bon yéen yàlla jooju ngeen am moo tax bokkuma yéen yàlla boo tax seen xoqatal yi faalewu ma len ndax ma len gën yalla ma len gën yalla boo tax faalewu ma len dama sama xel dafa dal lol ba digënté sama borom dama ci dal xel lol am ci njort lu rafet lol am tawfiq bir ak bit sama tabia abi leer sama lepp leer sama digënté ak yalla lu toll ne tara fatam añu dama ko lol jox ko sama bop lol mu delo mako lol ma yëg lol lool moo tax seen cëppi cëppi bojo bojo yi wu ma leen bu ngeen di mer man damay bég bu ngeen di bég man damay mer ndax yeen iya, yeen ni bégal moy bu ngeen di jaamu seen yalla yeek seen serigne da ngeen di bég damay mer damay mer yeen iya, bu ngeen di bég man damay mer su may mer nak, ngeen di bég su may mer moy bu ngeen tooñee sama yalla sama yalla ji ma am yalla ay alquran ji yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam su may mer diko, diko jappale yeen da ngeen di bég ndax yalla bokku ñu yalla sama limay wax ne du neex a لماذا يوحني برا محل لا يوحد وهم موظفين لا بوتيد برا محل لا يوحد ولا كون لي خيو تي ريومي دولو بس دا اما نعم ايديا غو بس لا في داودي فو ay 4-4 la ñu dawal weew weew weew ministre bi ñëw président ba dem ñu daal di gas suul yi wax wax wax génn lu ma cinquante millions jox famille yi jàpp leen ci li làppato yi ndogalu yàlla ñiy génn télé yi média yi kërëb kërëb ñu gas suul parce que du ngeen ay nit du su nekk mokk loolu mooy lem bu ngeen doon ay nit yi jeex na bu yàgg jóge na fi bu yàgg kenn ay tappaleegi ñoom ñu ngi ci seen logique ñoom ñoom ñu jiite nguur gi ñoom kilifa yi moo xam kilifa diine moo xam kilifa politique ñoom xam nañ bu baax li may wax man xam naa leen ñoom xam nañ bu baax li may wax ngeen foog nañ xale yi dee nii liir yi dañoo dee nii rek ci accident accident wu ñu de dañ leen a rey dañ leen a sacrifié sacrifice rituel lañ def dem leen ngeen gëstu ji sur les sacrifice sataniques xam nga des faux juifs khazars dem leen ngeen xool xale ya jël xale lakk illa kooku c'est kooku kooku c'est une pratique satanique lakk xale lakk lakk ba mu xëm kooku c'est satanique kooku dafa am ay énergie yu si génn dafa am ay puissance yu ciy génn dafa am ay ay ay ay ay ay ay énergie yu am doole yu ciy génn yéen da ngeen a xamul dem leen ngeen gëstu ji ngeen foog ne xale yi dañoo dee comme ça nii mais c'est bien organisé c'est bien planifier xale yi lakk lakk bi du ko circuit di dara ay ponkal yu nekk ci bopp réew mi nekk ay kilifa ci côté yépp nag nga xam ne li leen def kilifa du diine li leen def kilifa du xam-xam li leen def kilifa du réew mi bëgg leen ci wàllu politique li def kilifa du am xam-xam li leen def kilifa mooy ay fétiche seytaane seytaane la àndal dajjaal la ñu àndal di sacrifier ay doomu aadama seen jinne yi ñu àndal saa su ñu amee tolof tolof ñu war a dee bañ seen bañ a dee toll ci war a dee xam na dañuy dee parce que yéen da ngeen a xamul jinne jinne yàlla dafa may jinne xam-xam jinne dafa am xam-xam yàlla moo bind jinne qul uxiya ilayya annahu stamaa nafarun minal nafarun minal <laughs> jinne yi li ñu jaamu yàlla ci àdduna jinne yi li ñu zikkar ci yàlla jinne yi ni ñu yéen jinne yi yàlla daf leen may xel jinne yi dañoo xam jinne yi booy waage jinne yi jinne mën naa xam nit ku war a dee ak nit ku war dee jinne mën naa fekk nit ki waaj a dee mu fexe ba yokk ak dundam xanaa xamu leen loolu yàlla may na jinne nit ko war a dee jinne jinne ci ay pexeem fexe ba yokk dundam <laughs> yéen xamu leen jinne yéen xamu leen yàlla maa xalaat maa yéen bokkuñu yàlla <laughs> moo tax yéen lu ñëw ngeen teg ko yàlla li ma gën a métti nag mooy lu leen dal ngeen na sama yàlla ji moo leen ko teg waaye heureusement ba maag yéen bokku leen yàlla yàlla ji ngeen di tuumaal ne moo rey xale yi lakk leen ba ñu xam yàlla ji nga xam ne moom seen yàlla yéen ak sama yàlla bokku lakum diinukum waliya diin seen Dina ji yor ak sama dina bokul de motax mag yeen duñu meuna deggo mag yeen samay wax duggu seni nok seni wax du samay nok summun bukumun umuyun la yalla ya wax ci alquran du ngeen ma degg duma len degg ah ndax dama kastre sen nopp yi sen seen bët yi dégg nga maam daa di xol yi ah mun len ki dara famay tacc ak yéen yow rek fay dox bi jëm aljana bi jëm safara c'est trop tard wax gi du neex ah, waaye li xew démb ngeen yaakaar ne ay accident la ay négligence la ay opi certes hôpitaux yi amuñu dara ñi leen jiite ñi leen jiite nekk ci bopp réew mi ci fànn yëpp na kilif ñi nekk ci politique bi yor alalu réew mi seen yitte du ngeen am ay hôpitaux yu baax seen yitte du seen dund gi sell seen yitte du ngeen génn ci tolof tolof seen yitte mooy ngeen dund ci jafe-jafe di gën di ndóol di gën a feebar di ñàkk ñàkk ñàkk ndax ci seen ñàkk googu ñoom ci la ñuy siimee seen ngeen ñàkk ñàkk faju gi ngeen ñàkk faju ñoom ñoo ñee gis barki dem ñu toog xalif général tuyaawoon bi di wax bi fa Diouf Sarr demee 2018 mu di ko wax li nekk ci hôpital bi di ñax ne ko il faut ñu am jox ko enveloppe bi ne ko nag waaye gàmm gaa ngi ñëw di gis nga ñu am na lu ñu war def ci hôpital bi waaye dañ koy conditionné ci ak gàmm lan la gàmm joteek hôpital bu ñu war a tabax lan la gàmm joteek hôpital bu ñu war a jël temps étudier manquement yi xool la ca war am yëpp ñu def ko fa ngir bakkan ya fa war a sauver lu mu jotee ak agenda gàmm ba bu gàmmu ñëwee la ñuy def seen loolu la ñuy tuddee CRD gouverneur ba ak ministre ba war nañoo jënd alcool war na ñab ñabal ñab ñabal taf yëngal ndax gàmm gi moom moo gën a nekk farata defar hôpital bi gàmm gi moo gën a nekk farata defar hôpital bi tabax jumaa ji vingt milliards moo gën a nekk farata tabax hôpital bi donte nag bokkul état mooy tabax hôpital waaye état wut tabax loolu mu def tuyaawoon googee moom moomee mu tabaxal leen fa defal leen ko climatiseur ki defal leen ay podium ki ñuy recevoir seen gan def na ca ñaata milliards la ki def deux milliards xamu trois milliards taax ma mu tabaxal waa Tiwaawan ca dëkk Tiwaawan googu ñu fay recevoir seen gan teg seen i microbe mu mel ne amphithéâtre bi ñu jàng ci université tubaab bi amphithéâtre boobu defal leen fa seen ay logement yooyu def ci ay milliards Macky Sall waaw lu tax defu ko ci hôpital parce que yéen taalibe yéen loolu moo leen gënal hôpital bu baax du ngeen ay nit loolu mu def ca Tiwaawan ba ngeen kontaan ci yéen taalibe Tiwaawan yi loolee mu def mooy seen symposium boobee xaw ma ngeen naa da ngeen defar ay jumaay vingt milliards ki ay parasol yu tëjee ko tijjee ko te yéen da ngeen a cëkkale ku cëkkale du booti gamb jigéen ju koddaayam cëkk du ca roofi gamb da ngeen a cëkkale di ñoqale di def naan la am màkk ak la am fee màkk dañoo am pétrole am gaz nekk am ay fula nekk ay naar yoo seen alal toog yéen da ngeen yelwaan di dunde lu ngeen doyee jumaa yi vingt milliards hôpital bi baaxul gën a yaa ngi ngeen di tabaxee hôpital yi vingt milliards pourquoi da ngeen ne ma waaw loolu so yoon nekku ci ndax état war a def ñun suñu xaalis bopp la d' accord bu ngeen jëlee am ngeen droit yéen jël sama xaalis tabax fi jumaa mille milliards bu leen neexee waaye bala ngeen koo def laa wax bala ngeen a def jumaa joojee waaye waaye fexe leen ba am hôpital bu jag njëkk bu hôpital bi baaxee njàng bi baax xëy mi baax kër yi dëkkuwaay yi baax sécurité bi am ba noppi nag ngeen soo a dem tabax seen jumaa or bu leen neexee su boobaa du ma su leen ŋàññ waaye da ngeen a farata di def sunna di ëttub Seydil nga xam ne sëy yaa sëy di da daan jàngale jàngale farata jàngale sunna ngeen ñëw fekk la Seydi Hadji Malick doon jàngale ngeen dëpp ko bàyyi farata ya nga xam ne ci la daan gën a sonn sunna yi mu wax ca ngeen duppal ñu mbir ma jël yi Seydi Hadji Malick sànn ci àll ba indi jël sunna teg ko ci kaw farata loolu mooy tabax jumaa yi vingt milliards tabax ab symposium bu deux xoma quatre milliards bàyyi jumaa jumaawu Mawlana Cheikh Abdoul Aziz baax joo xam ne yéen ñëpp waatu yaram bu ngeen feebaree fa ngeen dem ba mu des ñoom ñoom ñu sant si ak ñoom ñu toog ci kaw borom daraja yi kenn du fa fajoo hôpital boobu wax leen ma ko fay fajoo ci ñoom ñoom ci clinique yi la ñuy fajoo wala France dus ma nekk ma gis leen wala Italie wala Amérique fa la ñuy fajoo ji duñu dugg ci hôpital boobu yéen lappato yéen ñi nga xam ne ay seen papa yi ay taalibe lañu yéen ay taalibe ngeen seen i doom taalibe lañu yéen yenee dee foofu waaye ñoom duñu fa wax leen ma kan ci ñoom ñu sant si ñoom mas a dee ci taal boobu wax leen ma ko kenn wax leen ma amut amut waaw lii ma leen wax ku leen koy wax kenn du leen ko wax man dong maa leen koy man man képp maa leen koy wax te ku ko mën a weddi nga weddi ku weddi na weddi ku koy weddi li may wax kenn du ko weddi man na laa naqari nag nga saaga ba yàq ma lu ne duma wàññi dara loo ma gën a saaga yàlla di la gën a duma ëllëg wallahi al ma gën a saaga rek boo léegi yàlla na la si sifaay yu metti te duma la ko baal ndax man ku ma tooñ yàlla fayul ma sama diggante sama borom aw ma ci sikk sàkk képp ku ma tooñ yàlla dama duma ndax dëgg laay wax su ma sama dëgg gi su la neexul muñ ko na pat waaye boo ma saaga wala nga tumal ma ndax moom laa moom laay liggéeyal li ma wax kenn du ko wedd mën naa neex mën kenn ko wedd ñoom ñuy toog ci podium yi di wax ak deux mandats ki cinq mandats ñoom ñëpp a weew ñoom ñëpp a feebar jamono yi may wax ñoom ñëpp a feebar kenn wéru kenn du dem ca jumaa jooju dafa fa jooj kenn du dem ca hôpital boobu dafa fa jooj yéen baadoole yéen dafa fa jooj yéen doomi làppato yi yéen ñi ne yéen sëriñ yéen ñi nga xam ne seen yàlla yi ay sëriñ la yéen yéen a fay dem di faju yéen yéen a fay dee ak seen i doom ñoom kenn du fa de kenn du fa dee yàlla moo ma yónni ci yéen may wax ak yéen par force da ngeen ma déglu par force li ma leen di wax dama leen koy forcer neexalu ma leen da ngeen di ñëw di ma déglu fii par force parce que bu ma fayee du ngeen ko dégg feneen li may wax nii fii ngeen koy déglu te da ngeen di ñëw mu naqari leen mu neex leen da ngeen di ñëw di ma déglu par force parce que li may wax du ngeen ko dégg fenn te bu ngeen ko fi bàyyee fu ngeen mënti dem ci àdduna bi ay fen ngeen fay fekk du ngeen fekk dëgg bu ngeen bëggee dégg dëgg fii ngeen ñëw par force parce que yàlla moo ko dogale noonu mu neex mu naqari waaw bu ma sant bu seet de santu ma Mbàkke santu ma si santu ma ñas santu ma laay santu ma dara waaye lii ma leen wax du ngeen ko dégg seen ëtt du ngeen ko dégg fenn fii ngeen ko déggee par force noonu la ko yàlla dogalee te jaam nag bu bëggee texee day nangu dogalu yàlla waaw loolu mooy li am je le dis en toute modestie parce que am na foo xam ne il faut ma àgg fa ak yéen il

Euh, Khazar le peuple Khazar les faux juifs Khazar dem leen ngeen xool seen histoire ngeen gëstu xool ñoom quel est le rapport bi ñu amoon ñoom les faux juifs Khazar les satans les dajjal yi nga xam ne ñoom ñooy les maamu Rockefeller yi ngeen di dégg ñoom maamu les Rothschild yi ngeen dégg ñoom nga xam ñoo nekk dans les grandes loges maçonniques ñoom ñi nga xam tay tey ils le monde ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal la pédophilie pédophilie il faut que vous disiez l'homosexualité, la pédophilie, le rituel satanique. C'est yàlla jooju nga xam ne lañ tuddee Baal la une ville bu nekk en Suisse C'est c'est une ville en Suisse ñoom ñoo créé une ville tout de ko Bal. pourquoi la Suisse est la capitale de de de la finance du monde la Suisse depuis tout le temps c'est un petit pays mais très puissant sur le plan donc euh, de l'influence la Suisse l'argent, le dollar, les Rothschild, les Rockefeller, les Soros <laughs> hein? vous n'avez rien compris vous êtes complètement à côté de la plaque parce que vous n'avez pas les bons filons pour comprendre comment fonctionne le monde monde c'est quoi la position de Dajjal Iblis Shaitan, de nga il a la yalla mission pour ça, ça safara ça. mi ngi di yóbbu rek mi ngi di yóbbu rek foo fekk mbooloo mu bari ñuy foto ko naan sëñ bi kër kër boo ca seetee benn moo ca dugg ak ñeex ca ñëpp safara lañ def yàlla soxlawul mbooloo yàlla qualité la bëgg soxlawul quantité moo tax sama wéet ji ma wéet man ci li ma def ni dama ci am xel mu dal macha allah ndax fu yàlla tuddee mbooloo ci alquran musiba la cay teg ay tëkku la cay teg wala lakk dugal safara wala yàlla mbooloo yittelu ko moo tax nee na àjjanaam ji du fees waaye safara gi moom dañuy fees ba dank li ko mel na ay dage daañ ci fees ba ba tegaloo ci biir safara safara bi day fees bay tuuru waaye àjjana moom du fees ndax yàlla qualité la bëgg bëggul bëggul quantité bu baaxul amulu ko njëriñ ah Diouf Sarr était en Suisse voilà c'est pas le hasard c'est pas la hasard mm-hmm. la Suisse c'est la capitale mondiale de Dajjal Suisse mooy capitale mondialu seen seytaane iblis bi nga ne ma nga ne ma Diouf ma nga woon Suisse hasard amul moo tax man la xale yi dee nii dañ ko planifier ñoom ñoo ko tey Macky Sall nga Angola kay dem Suisse sax ñu génn dëkk bi Mariam Faye Sall bëgg den moytu leen dëkk bi def ay audio di wax naan moytu leen ñoom xam nañu parce que dañoo ñoom dañu nekk sur le point de perte réew mi réew mi lañ commencé ñàkk te ñoom réew mi suñ ko naree ñàkk dafa am ay énergie yoo xam ne dañ koy soxla ñoom amatuñu ay énergie dañu dem signer avec le diable boo demee ba signer pacte ba jox sa bopp saytaane daf lay wax na la man jox ma sa bopp boo ma joxee sa bopp àdduna moom loo ci bëgg mën naa la ko defal loo bëgg ci àdduna mën nga ko am waaye boo dee safara nga jëm jox ma sa bopp nga ne d'accord na mën laa def naa man laa may ay milliards mën laa jox ay loo xam ne boo ko defee nit ñi kenn du jóg yooyu yëpp am na li ma leen wax am na de maa leen gën a gëm yàlla fuuf xam yàlla am tawxiid faale wu ma leen gëw ma leen waaye nag li may décrire lu am na ndax lépp ñu ngi jóge ci borom bi borom bi ci boppam moo leen kàttanal keroog ba Iblis jàddee la ko borom bi may doole jooju doole jooju nag ba léegi mi fi moo tax ma na leen lépp lu leer mën a maye lëndëm mën na ko maye ndax leer dafa am force am énergie lëndëm dafa am énergie ñaari énergie yi nag bokkul énergie bu ci nekk dafa am foo xam ne boo ko fa dugalee mu joxe résultat masalan tey essence ak kérosène ñaar yëpp ay énergie la essence ak kérosène ay énergie la mais boo jëlee essence def ko ci avion avion bi du naaw. boo jëlee kérosène def ko ci oto bi oto bi du dem pourtant ñaar yëpp kérosène la noonu la leer ak lëndëm mel lëndëm ni mu a lëndëm am na foo xam ne lëndëm gis nga ñoom Macky Sall ñoom ñi sëriñ ci ñenn ñi ngeen gëm ñenn ci sëriñ si la ci fétiche dox ku ci dee tàbbi safara wallahi lazim li wax amul dem dik moo tax du ngeen tey su ngeen wax ci seen sëriñ si yéen ñi wax ma ñëpp nag ñenn ñi su ngeen wax ci Macky Sall doo am sago sooy wax sëriñ bi doo am sago loolu lépp dafa am lu ko waral dafa am ay sacrifice rituel yu ñuy def yoo xam ne bu njëkk dañ daan rey ay animaux jël ay nag jël ay yooyu yëpp moo tax seen symbole boo xoolee seen des animaux ñu dem ba yàgg nag léegi seen symbole yi nekk ay nit ñu dem ba ñu jël nit ak bàyyi ma boo xoolee seen symbole yi seen statut dañuy jël bopp nit teg ko ci teg ko ci yaramu bàyyi ma wala ñu jël yaramu bopp bàyyi ma teg ko ci yaramu nit yooyu yëpp dafa am lu muy symbole yi dafa am lu muy tekki ci ñoom il faut que ngeen yeewu dellu seen bopp ci yàlla jox seen bopp yàlla ngeen wóolu yàlla bu ngeen ko defee mu ñëw jàppale leen mais tant que yéen a ngi jël ay nit di leen gëm gëm nit ñooñu gëm goo xam ne àggul ci yàlla bu ñu saagaa yàlla du leen métti bu ñu xasee yonantoon bi du leen métti alquran bi bu ñu ko yàqee du leen métti waaye bu ñu nee diw wala doomu diw wala diw man ngeen a joxe seen bakkan loolu ngeen yaakaar ne loolu dee ci wóor na loolu ku ci dee yow foo jëm fan ngeen jëm fan ngeen jëm ci lool li xew ni ñoom ci seen bopp wax naa ko dégg parce que ñi leen ñi ko def ñooy ñëwaat wee wee wee oto yi gasneer yi kastem yi làkki tubaab def déclaration ñoom ñoo ko def de pour lan pour seen pouvoir moo xam le pouvoir maraboutique moo xam le pouvoir politique les deux pouvoirs de tic là maraboutique politique du xam-xam de du yàlla yëkkati de du ragal yàlla de du ak leer de dara ay fétis képp moo leen fi samp ñoom ñëpp moo tax dañuy rayante seen diir fétis xërëm seytaane waaye ku gétaa bi safara fétis yooyu moo leen yóbbee ci lii jël ay xale lakk ko loolu kooku kooku c'est un sacrifice rituel kooku ñu ngi ko jàngee ci kazaar yi kazaar ñoom seen yàlla ji bu ñu mësaan a am jafe-jafe wala ñu bëgg am puissance pour am doole am xaalis am alal dañuy jël ay xale yu doog a judd xale lañu jël sànni ko ci sébbu buy tàkk ñoom dañu daan xam ba mu tàkk ñu sànni ci ay gone ndax xale dafa am pureté dafa am énergie yu nekk ci gone gone buy soog a judd gone nouveau-né dafa am secret yu bari yu ci yàlla dëxëj ngone dafa am ay secret ay énergie yoo xam ne ñoom amuñu ko les énergies positives et les énergies négatives yéen ñiy def physique def def électricité On ngeen xam li may wax <laughs> léegi ñoom ñoom keroog ba ñu daj ba ñu ba ñu signé pacte avec le diable iblis na dañuy ànd ak iblis keroog la ñu ñàkk ñoom énergie bu positive bi énergie bu baax bi énergie leer gi nga xam ne mooy mooy mooy bi yàlla gërëm boobu ñoom boobu lañ ko ñàkk mooy bi alquran indi boobu dañ koo gedd ndax ne nañ boobu gaawul daal di dem jël bu iblis iblis nag ba sam jooni jooni la moo gën a gaaw waaye dafa am prix dafa am njëg njëg bi nag mooy léegi la ñu la xare léegi la la bëy léegi la ñu la da ngay dagg sa bopp wala ko jox ma sa doom am na ñoo xam ne seen doom yi la ñuy jur di leen sacrifier xam <laughs> na ñoo xam ne seen doom la jël dañuy jur doom joxe ko jox ko jinne am na ma xam ne seen yaay la joxe jox seen pàpp ñu joxe sen rakk bu jigéen ñu joxe seen bopp am na ñoo xam ne ci seen yaram la ñuy dagg joxe dañuy dagg ci seen butit joxe opéré dagg ci butit bi joxe wala nga dagg sa benn baaraam joxe <laughs> subhanallah la hawla wala quwwata illa billahi al aliyi al azim la hawla wala quwwata illa billahi al la hawla wala quwwata illa billah subhanallah subhanallah subhanallah yal nañu yàlla musal ci seytaane seytaane moo bari doole àdduna képp am poñetum aduna poñetum aduna poñet te wessu lu boko don defal yalla sax lu bax waye jigen drop sex fen yamba gor jigen, tax taxan rek ba xëy dee caaxaan ci nga nek ba xëy dee tabbi safara dag say baram joxe dag sa karaw joxe jël sa ndunku-ndunku gi dag joxe wala amna ño xamna ñi feebar foo leen fekk am na ñoo xam ne foo leen ngi fee parce que dafa am lu ñu joxe ci seen bir yaram dañu am alal lool waaye ñu kenn mënu leen faj nag man dafa am lu ñu seen yaram joxe ko jinne bi moom roog ci mi rokkaani rek jinne bi moom am na lu man de jinne bu leen xeeb jinne bi waaw bu leen xeeb jinne de jinne dafa xam lu bari secret yu bari jinne dañ ko am waaye nag seen secret yooyu amu ci bu am njariñ benn amu ci njariñ lu la jinne may ci àdduna la ko xañ lu mu la may ci àdduna bi dana ñëw mu xañ la ko ndax amulub mucc ñoom nag xam nañ ko waaye ñoom foo bëgg giro kat yi yi daraja yi di saraxe ñepp di la yalwaan ministre bi ñew na président bi ñew na kilifa diine bi ñew na ak gangoram auto yi yanj yi xaalis bi jigéen ñi waj misui yi gasner yi daraja ji tok climatiseur yi kër yi tax ya geegi ñom ñoom loolu lañ ko jënde loolu mo leen ko jëral waye buñu ñëla tak ba nga ne kodd sang la wëlbati wat solol la sa juroom ñaari perkal dugol la ci ak caisse jaagal jaagal dem gas ba mu xoot ñoo la fa rebb tecc delu ñepp ñibi nekk seen i jeeg yow nga def fa yow képp foofa ngay xam ne lépp dëgg la foofa ngay xam ne lépp dëgg donc gone yi ngeen gis ñu sacrifié leen fukki gone yeeg benn chiffre yi sax mënagul a génn duñ leen jox chiffre yu baax ñu fexe ba parce que chiffre dafa am lu muy tekki période bi nga dafa am lu muy tekki mois bi jour yi bi yëpp dafa am lu muy tekki xale bi yëpp dafa am ay force énergie yoo xam na ñoom dañ koy soxla parce que léeg dañuy nekk ci ay position de faiblesse jamono bi xam ngeen ñoo ngi dem ci ay bii xam ngeen ñoom dañu nekk ci position de faiblesse jamono bii xam nga seen liste yi baaxul jamono bii xam nga wër ndomba gi yeewi ak wàllu def def ko benn boo ko yaakaar seen pouvoir seen pouvoir buum la goo xam ne buumu bato la buum gi di dagg di dagg di dagg di dagg ba mu des genn gu wëñ buum guy doon téye bato buum buy téye bato di dagg di fett di dagg di fett ba buum ji léegi genn gu benn wëñ moo te buum gi tàqali ko benn wëñ wëñ boobee foofu la waa benn boo ko yaakaar bu ko nekk xëccee rek buum gi dagg mooy nguur gi nga xam ne moom lañu nekk mooy waaj a jeex moo tax lu dañ ko def lu ci nekk daañu ko def rey yi ngeen gis ci réew mi ñu naan dañoo boutique ak dafa ëmboon ak yooyu yëpp rey réew mi amul amul agresseur de réew mi amul agresseur dañ leen di nax réew mi amul agresseur sénégalais du agressé sénégalais du agressé sénégalais amul nature agression dama leen wax lu leer dañ leen di nax ñoom ñi yor réew mi muy kilifa yi diine yëg aada yeeg politique bi ñoom ñooy xabtal ak seen fétiche yi ñenn ñoo xam ne seen bopp yi réew ñu ñu xabtal leen ba ñoom ñu jóg di dem di rey ay nit yoo xam ne seen jinne yi ñu leen yebal nit ñi reyaate di agressé moytu leen leen la ñu nekk tey ñu ko am na seen kenn ku bokk ci ñoom ku dëkkoon Pikine koo xam ne Fatimata ko ma naka te ñu reyoon ko fi député booba dañ ko rendi xatti tër ka ko rendi ngeen foog na noo ko tey chauffeur bi ko rendi woon lu tax mu rendi ko dañ koo xattal ay jinne lañ ko boole ñu def seen i fétiche yoo xam ne mu dem tiim ko rey ko di dawalal nit di ko dawalal ba nga xëy benn bis tëral ko tëral ko jaqeet rendi ko xat taxaw loolu nit mënu ko ku ko def rek am na leneen luñ def ci yow lu tax nga def loolu te loolu jinne mën na ko waaye jinne nag ñi muy jàpp xam nga jinne ki muy jàpp mooy ki gëmul yàlla moo tax yéen may leen dem leen ngeen namm seen tawxid seen paaka tawxid dem leen ngeen namm ko ba mu ñaw ngeen dellu ci yàlla tey sellal kii sellal te gëm yàlla kooku la yàlla di musal ci jinne waaye ku gëm ab sëriñ yëkkati ko teg ko ci place yàlla wala nga yaakaar ab sëriñ ci yaakaar yàlla wala bu ñu waxee ci alquran jeeg yonentu beeg lépp lu yàlla gërëm buñ te waxee du la metti waaye buñ tuddee sa sëriñ nga pare ko joxe sa bakkan yow iblis këf na la bu yàgg te bu jinne yi fàdd yow lañ njëkk a fàdd yow yow yow ci ñi njëkk a fàdd ci ngay bokk te boo dee tàbbi safara kenn mënu ci yow dara kenn mënu laa musal yàlla kenn du ko wóolu di kenn du am sikk sàkk ci yàlla du tàbbi àggina àggina kuy sikk sàkk kuy sikk sàkk yàlla du fa tàbbi àggina képp ku am sikk sàkk ci yàlla di ko xoñoleen wala ngay am koo ko dellal sëriñ sëriñ bi kat waaw yàlla bu ma lu ma am sëriñ sëriñ bi yàlla moo ko am ci yàlla képp ku wax doo tàbbi àggina àggina ku ku ku jeex yàlla tàkk moo fa dugg yàlla da ko bind bindin woo xam ne alam boo xam ne da ko bind ci pour nga mën faa tàbbi caabi jiy ubbi buntu àggina mooy mooy miftaaxul ma mahabba bi ngay am ak taw tawxiid bi ngay am ci yàlla caabi jooju moo la dugal àjjana boo ko amul même boo rëccoon dugg fa par accident àjjana moo lay sànn àjjana da lay gedd gis nga géej boo ca labee lab ca ba tëmb ca ba neeyu ba fonkee ba nga xam ne amatoo poids géej gi da lay gedd da génne moo tax ku dee ci géej bu la jën yi lekkul boo fa defee ñetti an boo fa defee ñetti fan ñeenti fan génn géej géej gi lay génne boo amul chance génn yi lekk la lu tax géej dafa seexu géej la géej géej bi di génnee ba nga dee def fa ñetti fan ba fonki ba kii te jëni lekkuñu ñu noonu la géej gi di génne géej géej day raxas géej day raxas géej moom bëggul fan la moo tax medd bu fa dugg géej da lay génne waaw jëni dañ lay lekk wala géej gi génne la waaye doo fa doo fa nekk te mbàmbalu géej gi da lay génne ndax géej dafa sell noonu la géej gi di génnee sànni la ca biir ca tefes ga noonu la la nay génnee boo fa juumoon tey ji ba dugg àjjana te waroo faa dugg àjjana lay falax sa àll ba da lay sànni ca ca biti da lay génne àjjana ci boobu moo du nangu ndax gëmoo yàlla ku gëmul yàlla dugg àjjana gëm yàlla mooy wóolu yàlla gëm yàlla xam na yàlla mooy dogal yàlla moom man yàlla mooy borom univers bi yàlla moom moom Serigne Touba yàlla moom Alaaji Malik yàlla moom Mbay Si Mansuur mi yàlla moom Muntaka yàlla ngeen baññee na jaawale di leen teg place boo xam ne yàlla képp moo ko yeyoo loolu mooy dëkk loolu nag bu amul Mbay Si Mansuur moo leen gënal yàlla Muntaxa Mbàkke la gën a yàlla moo tax lii moo fi am lii yàlla leen di bàyyi ak seytaane iblis dajjaal ñoom Macky Sall leen di bàyyi rek ñoom ñi ñu def seen i fétiche indi seen féticheur dugal ci biir ñee tëb ca uh, watu pale ba daanu mag ba dem fay sàll jëm jëli féticheur yi nekk ci àdduna bi yëpp dugal leen ci hôtel yi ñuy fétiche mu jël ay milliards séddale leen jinne bi ko waaw lii mën nga ko am ñii duñ jóg ñi bu patriote yi duñ jóg xeex bi lii sa liste bi mën naa jàll conséquence li lay wax suulal lii lekkale lee saraxel yi rayal nit boo amee fukki lii rek benn boo ko de boo leen lakkee da nga am pouvoir bi yooyu yëpp te luñ leen wax ñu ne waaw jinne yi ñoom loolu de waaw boo suulee gëlëm bu dee nag bu ñuul bu deewagul boo joxee kii mu lekk boo saraxeelee loolu ngeen gis enveloppe Marème Faye Sall yooyu ngeen gis mu di ko génne ñaari mbir moo tax mu di ko génne benn bi moo jox nañ ko alal ji bari ci àdduna bi ci au nom de la solidarité a ne xaalis bi ngeen ma jox maa ngi ko bi mooy sarax yu nar a génne fan yi ko foofu sarax yëpp kat lu mu leen jox ngeen lekk ko lu ne yërmande taxul mu def ko waaye bëgg a toog ci nguur gi moo tax mu leen sarax lu mu leen sarax rek posen la moom madame Ngoye Sall képp kuy lekk saraxam jinne yi bu ñuy bu ñuy dal ci sa ko la ñu njëkk fàdd képp ku lekk sarax bu jógee ci madame Ngoye Sall Macky Sall ba mu dugg ci sa deret seen jinne yi buy laaj bu ñuy laaj sarax yow yaay njëkk a dem sarax bi yow yow yow moom sa deret mooy njëkk a tuuru <laughs> loolu loolu dama leen koo xam mooy saraxu madame Ngoye Sall lu ngeen xiif xiif xiif xiif xiif xiif dem leen ngeen dank ab suuf lekk suuf lekk suuf taxaw lekk suuf moo gën lekk xaalis bu jógee ci Marième Faye Sall ndax lu Marième Faye Sall lu mu la jox posen la lu mu la jox rek boppam moo tax mu jox la ko dafa am lu mu ci bëgg moom ci wàllu njabare ki fétiche ak xërëm moom la ci jublu moo tax mu jox la ko waaye jox la ko ngir mën ndax Marième Faye Sall xol bi weñee ci nekk xol bi weñ moo ci nekk bëggul kenn ak njabootam dong la bëgg ak i mbokkam bëggul benn sénégalais loolu da ko xam dañuy sacrifier ay nit li ma leen wax dafa yàgg ci Sénégal nguur gi bu leen yaakaar ne ay nguur yu caaxaan la kenn ku ne ñoom ñi fi nekk yàlla tegu leen fi kenn tegu leen fi seen i pexe iblis seytaane moo leen fi teg ay sacrifice yu ñuy def ay bakkan yu ñuy faat ay jigéen yu ñuy faat ay xale yu ndaw yu xonk coow yu ñuy faat ay liir yu soog a juddu ñu jël seen ay placenta jël seen ay cordon ombilical am lu ñu ciy def ak seen ay féticheurs di ko boole yu bon yu xasaw yoo xam ne lépp affaire seytaane affaire iblis di ko jëfandikoo di ci nax nit ñi pour lan pour mën a toog ci nguur gi pour lan pour am alal pour jekko àdduna àdduna képp moo tax ñu di ko def léegi nag bu loolu amee nag rey rey nañu fukki xale liir liir yi soog a judd ak benn bërki démb xaw ma bii ci guddi bi ci guddi la bi information bi génnee ak tey Sénégal gépp ci loolu la ñuy wax te ñi ëpp gi Sénégal di ci wax dañoo triste am lu leen naqari xanaa xamu leen ne sentiment boobu yëg-yëg boobu sénégalais ngeen am yéen lappatoo yëg-yëg boobu ngeen am. te ñu ëpp ci Sénégalais yi bu ñu yëgee xibaar bi même yëg bi même yëg-yëg bi lañ ci am mooy naqar lañ ci am ak tristesse am lu ñu yëg ci seen yaram yéen ñëpp loolu ngeen yëg seen yaram kenn ku ci nekk li nga yëg seen yaram xam nga ko loolu nga yëg seen yaram moom la ñu bari yëg seen yaram kon ñoom yi soxla yëg-yëg boobu ngeen am seen yaram yi moom lañ soxla ñoom seen jinne yi parce que ñoom ñu produire émotion boobu maanaam li tubaab tuddee émotion yëg-yëg boobu ngeen am moom la seen seytaane yi seen seen jinne yi moom lañ soxla pour mën a tëgg benn mbir boo xam ne dafa leen dooleel ñoom dañoo soxla énergie te énergie bi ñu ngi ko jëlee ci émotion yi émotion yooyu yéen ñëpp ngeen am ko man bokkuma ci man ooma émotion ne ba ma yëgee mbir mi man ooma benn émotion man lii li xew dee ma naqari wu ma neexu ma ci sentiment njàngat laa ci am man yéen fi ngeen amee ay yëg man foofu dama fay réfléchir damay xalaat man sama xel lay dawal moo tax man sama énergie du ko jël jinne du ko jël ñoom duñ ko jëfandikoo ñoom dañuy soxla jamono boo xam ne bu ñu jàqee comme jamono bii nga xam ne duñu bokk ci élection yi dañuy ñàkk nguur gi pétrole beeg gaz war a ñëw enjeu milliards yeeg ak audit yi war a ama ñi war a dem ci kaso yeeg daa ima nag autre maanaam bu ñu ñàkkee nguur gi xam ngeen conséquence Macky Sall bu ñu ñàkk nguur gi léegi foofu lañ toll mooy buum gi war a dagg ba benn wuñ des ci loolu la def nag léegi te li ñu bëgg dëgg dëgg dëgg seen jinne yi mënuñu leen a defal lenn lu ñu am énergie parce que lépp énergie moo koy defal énergie dafa am solo xamuleen nag lan mooy énergie il faut que ngeen dem gëstu lan mooy énergie <laughs> énergie àdduna bi lépp énergie la Dieu est énergie énergie mooy substance boo xam ne mbir boo xam ne mën na créer dynamique lu mën a créer dynamique lu mën a créer luy daw loo xam ne day déplacé wu loo xam ne day am conséquence loo xam ne bu ne bëreet loola am conséquence mu am lu mu jur parce que loolu rek moo fi am lu lu àdduna bi ñaari mbir fi nekk lu loo xam ne dafa statique mooy lu taxaw ak loo xam ne dafa dynamique mooy luy dem luy dox lu taxaw ak luy dox rek fi am coolu jo àdduna bi li muy yaatu yëpp lu taxaw ak luy dox rek fi am ñoom nag ñoom ñi seytaane yi ñoom dañoo taxaw ñoom dañoo taxaw ñoom lu tax ñu taxaw mooy dañoo jaayanteeg seen borom teg mbon ba seen borom am lu mu rocc ci ñoom mooy lu leen di mën a permettre ñu dem mooy énergie positive bi nga xam ne amuñu ko mooy oto bu daw ba essence ba jeex day taxaw oto boo ko dawalee ba amatul essence bu daw day taxaw ñoom ay oto yu ñàkk essence lañu amuñu essence amuñu énergie ñoom Macky Sall ak ñoom seytaane ñoom ñëpp borom dara yooyu réew yi ngeen si àdduna bi yëpp mais dañoo am pexe comme amuñu énergie dañuy fexe ba sàcc énergie jàmbur yi naka lañ koy amee dañuy créer yu rëy événement rey ay nit wala accident bu gaaw wala jékki-jékki rey benn nit koo xam ne ponkal la wala jël ay xale yu leex yu tooy xepp yu soo a judd ñu làkk leen Sénégal ñëpp di ci wax coow na kur ñu créé benn genre égrégore xam ngeen luy égrégore bon naan na parce yi xam naa ne dina am ñu comprendre mais ñu bëri duñu li may wax ñu créé benn égrégore xam ngeen luy égrégore loolu waa tasawuf war nañ ko xam tasawuf ñoom xam nañ boo gisee ñuy tijaan yi di wasifa ak ñenn ñi di jàng seen jàngkatu xasida yi jàng xasida yi sëriñ Tuubaa yi ñaan xasida yi dafa am lu ki nekk walaay xasida sëñ bi kër kër boo dajalee mbooloo mu takk ñu yëkkateendoo xasida di ko yëkkateendoo di ko tegandoo mu am benn rythme ñu di ko def di ko def di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel am na foo xiir gi boo ko wëndeel wëndeel am na foo xam ne bu bu àggee day am doole am na foo xam ne bu vitesse bi xasida bi bu ñu ko yëg am na foo xam ne bu ñu ko yëgatee il nga daanu am day am ñu daanu ñi ngeen gis ñu daanu bu ñu jàng xasida yi ngeen foog la moo ñu daanu <laughs> xasida ni moo xam ci yaan yi la murit yi ñëpp nga nekk ci benn ëpp ñu jàng xasida ba yàgg nga daanu lu tax ngeen foog lu tax ah mais loolu loolu loolu loolu dafa am lu ci ay xam dafa dafa am dafa am mbir la <laughs> seet bon naa arrêté loolu parce que day compliqué après te du ngeen comprendre mën nañ ci ñëw def ci beneen live après mais dama lay bëgg a xamal ne émotion yëg-yëg yi ngeen am ci xale yi lakk ni parce que xam nga lakk rek dafa métti nga jëmale ko ci ay xale yu te xepp kooku énergie bi ñu doon bëgg ñoom bu positive eh, maanaam énergie bi ñu bëggoon dafa nekk énergie bu puissante jamono bii parce que seen doole moo jeex seen nguur jeex te ñu ngi ñàkk seen nguur donc seytaane jinne bi nga xam ne moom la ñuy traiteel moo leen laaj benn énergie bu mag a mag a mag boo xam ne pour ñu mën koo am il faut que ñu def luy lu tooy ñu lakk leen ba ñu xëm nga xam ne ku ko yëg dina am lu mu def ci yow yi loola mu def ci yow nag moo xam sentiment bu neex la wala bu naqari sentiment yooyu yëg-yëg yooyu ñoom seen jinne gi loolu la soxla pour tëgg ci ndomba goo xam ne ñoom dañuy gën a amaat doole ñoom dañuy sàcc suñu énergie ñoom ñi nga xam ne dañoo signé ak dajjal signé ak iblis amatuñu énergie bu positif moo tax boo gisee yàlla naan na ngeen may jaamu na ngeen sell na ngeen ma gëm dafa am lu yàlla dëxëñ ci doomu aadama dañuy bind doomu aadama yàlla dafa dagg ci leeram dugal ci doomu aadama leer googu mooy énergie bi xam ne mooy tax nga mën a dund mooy tax nga mën a xam mooy tax sa xel mooy tax lépp énergie boobu moo tax yàlla di ñu tere loolu bon di ñu def loolu baax parce que lu bàyyi bon ak def lu baax mooy tax leeru yàlla googu des ñun mooy tax ñu mën a dund léegi lu bon li ngay def nag da koy gàkkal da koy tilimal moo tax dangay ngay dema dem ba benn moment ci tilim li ngay am ci quantité centage yu tilim mooy ëpp li ngay am ci leer leer ga day jeex moo tax yàlla bëggul ñuy bàkkaaru bëggul ñu di ko moy ndax mooy yàlla gi du ko wàññi dara du ko jëriñ dara waaye ñun bu ñuy mooy yàlla ñun lay wàññi ndax leer gi yàlla fi ñun mooy wàññi te leer gi lu mu gën a yànniku lu mu gën a wàññiku lëndëm gi di gën a yokk lëndëm googu nag day àgg ci benn vitesse ci lëndëm xam nga ngay mooy sànq wax naa leen ko lépp lu leer mën a mayee ci vitesse lëndëm mën na koo maye ci vitesse waaye la la leer di may ci vitesse baaxee ci leer lëndëm gi noonu la lay mayee lu bon téem na mu lëndëmee moo tax lëndëm mën naa mayee pouvoir mën ngaa nekk ci lëndëm ba toog ci nguur mën ngaa nekk ci lu lëndëm ba noot aw askan mën ngaa toog ci lu lëndëm ba téye adduna bi waaw ah, na misaal la ci moo tax ma ne lu leer mën a maye lëndëm mën na koo maye lépp lu leer mën a maye lëndëm mën ma ko waaye nag leer li muy maye yëpp ci leer la ko mën a maye lëndëm li muy maye yëpp lëndëm la ko man a maye ñoom ñaar duñ jaxasoo góor ak jigéen lañ mënoo muuse ko macaat ba góor nekk jigéen jigéen nekk jigéen góor mënoo muuse ko macaat ba oto bi daw gasoil nga def ci essence mu daw mënoo muus ko maccaat ba oto bi daw essence nga defee gasoil bu doog oto bu daw essence boo ko defee gasoil mu taxaw yàq moteur ba pourtant essence ak gasoil yëpp ay énergie la mais bu ci nekk dafa am fu muy dugg noonu la leer ak lëndëm mel est-ce que xel yaa ngi tàkk est-ce que maa ngi booleel xel yi est-ce que sama xel yaa ngi tàkk loolu laa bëgg a xam bala maa continuer fii du gàmm de fii sëñ bi nekk fii man maay sëñ bi fii fii gàmm wuñu. ku sant Mbàkke amu fi ku sant si amu fi kuy déedéet fii gàmmuwuñu fii c'est le temple de Akhenaton fii c'est mon temple waaw si tu n'es pas géomètre si tu ne peux pas comprendre la géométrie dans l'espace soo fekkee mënoo jël sa xel mi def ko sànni ko ci jaww ji parce que fii ñun li ñuy wax ci jaww gi la ne sa xel bu mënta dem ci jaww gi li ñuy wax doo ko xam waaw soxlawuñu kuy saaga soxlawuñu kuy fo moo tax am naa ku ma ko wax sànq ne ko sama ëtt bi muy sama temple bi du fowukaay fii képp ko fi foo gi demal bala ma la dàq dama koy teel a wax ëtt bu ma yitteel la ëttub xam-xam la ëttub gëstu la ëttub buy jariñ doomu aadama pour yëkkati doomu aadama ci màqama bi ko yàlla jox moo tax ma sos ëtt bi pour ñu yëkkati ko ñun ñëpp képp ku si foofu kuy caaxaan ko kuy daanu jël taxawee ne ba noppi bis boo paree nga ñëwaat oui il y a deux forces les forces lumière et les forces obscures parce que Dieu est dans la dualité xikma bi que a rëy ci yàlla ci gën a xam yàlla mooy ki xam cette cette dualité Dieu yàlla lépp da ko créer ci ay contraire parce que c'est la dualité qui crée la dynamique Dieu est dualité ah lu ki nek rek Non, la ko defee motax tax yàlla subhanallah wallahi alazim am na loo xam ne sa sa bëri day taa booy wax ci yàlla subhanallah subhanallah subhanallah suñu borom pop du ku ñuy décrire yàlla kenn mënu ko décrire yàlla du ko du ku ñuy faram fàcce naan nii la mel leneen la kër kër ku la koy wax rek xamul yàlla yàlla boo yàlla du ku ñuy wax du ku ñuy décrire yàlla yàlla ku ñuy yëg la yàlla ku ñuy xam la ah waaye du ku ñuy jàngale yàlla kenn mënu ko jàngale kenn du ko jàngale yonte mën nga ko jàngale ku ne mën ko jàngale yàlla kenn mënu ko jàngale yàlla dañ koy yëg di ko dund. Ah, trop d'émotions, trop d'émotions. Comme hum. non, ni de lii du accident de xale yi dee ni du benn accident ñoom ñoo ko tey c'est planifié seen fétiche yëpp xëy ni ñuy def yëpp ci hôpital yi lañ koy defee xanaa xamoo hôpital yi ñoom mooy seen laboratoire bu ñu bëggee nit ku ñu faat ci hôpital bi lañuy dem bu ñu agressé wul bu ñu bëggee yenn organe nit ñi ci hôpital yi lañuy dem bu ñu bëggee néew yi wala ci si yéen xanaa xamoo ñaar yi mbir yi yi jinne yi gën a soxla mooy hôpital ak ay armeel xanaa xamu leen loolu ñoom seen féticheurs yi seen li ñu gën a soxla mooy armeel ak hôpital xanaa xamu leen lool lii ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ñoom daf ci am ñu war a dee de ci kilifa yi ñoom daf ci am ñoo xam ne ñoo war a dee mais dañuy dem seen jëmm yi ñu ne yéen da ngeen war a dee mais mën nañu ne yokkal seen dund pour quelques années mën naa nekk de li ma leen wax nii moo tax da ngeen a xamul jëmm yi mën ngaa dee ñu téye sa dee pendant quelques années ngay soog a dee <laughs> yéen xam yéen yéen. <laughs> cëpp cëpp cëpp waaye nag dafa am njëg njëg gi mooy lan ay bakkan ngay joxe pour sàmm sa bakkan bari na fi ku ñaan kilifa fii kilifa fii li ko fi ba ba léegi mooy bakkan la joxe bakkan ay bakkanu jàmbur la jox jinne yi jinne yi teel ko bakkanam pour quelques années encore mu mën a dundaat pour mën avant muy dee kon il faut que ngeen yew xam li xew parce que tant que xamu leen li xew li du fi jóg ñom li ñi def ñu ngi koy def dañuy neubatu diko def ndax li ñi def wote si bis bu siwe dootul am doole bis bu siwe dootul sotti moo tax ngeen déglu ñoon ay franc-maçon lañu dañuy neubatu dañuy li ak ñooñee di neubatu dañoo am ay secret yu ñu am yo xamne dañ ko sekk ak ay shaytané ay jinne yo xamne yu bon diko def di neubatu di leen ko neub yéen xamu leen ko seen àdduna bi doxul seen lépp yàqu ñoom ñu nekk ca kaw di gundaandaa te xamuleen li ko waral yéen bés bu ngeen ko xamee ñoom dootu ñu ko mën a defati dootul sotti parce que bis bu ngeen xamee li xew da ngeen di mel ne man dootu leen dox ci ay sentiment léeg-léeg ñi ma yow sa xol bi yow bu ñi kii ah man bu ngeen di jooyee ki diw dee naak dëj yi kii kërë man yooyu yëngalu ma yëngalu ma yëngalu ma parce que danaa xam li xew Je xam li xew. ni organisé coupe d'Afrique bi ñëwee yéen ñëpp ngeen génn ñu taxawal seen ay ils ont besoin des ondes positives des énergies positives te mooy yan mooy yéen yi am ak seytaane ak dajjaal boo xasee ba dugg seen biir ba ñu ngénte la da nga bokk ci ñoom amatoo énergie yu positive saa soo ko bëggee da ngay dem uti ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ñoom ñooy jaamu yàlla ñoom ngay fexe ba dugal leen ay événement ay Wally Seck ay Youssou Ndour ay stade ba ñuy ubbi ay Coupe d'Afrique mbooloo ma cee dajaloo moo xam mbégte moo cay jóge moo xam naqar moo cay jóge ndax énergie mën nga ko am ci ñaar yëpp énergie mën nga ko am ci mbégte mën nga ko am ci naqar saa su naqar amee day am sentiment day am lu muy jur yëg bu mbëkk mbégte amee day am lu mujj ñaar yooyu yëpp ñoom dañ ko soxla mën nañ caa jukki énergie énergie mooy essence wala gasoil bi nga xam ne mooy dawal oto bi oto bi lu mu rafet rafet mën ngaa jëndee oto milliard oto milliard boo ko deful essence du daw ñoom nag ay oto yu jar milliard la ñu doon ñoom seytaane yi am na ñoom ñu signé ak dajjal ak iblis ñoom ay ay oto yu milliard la ñu waaye lay dawal seen oto yooyee mooy énergie bi nga xam ne amuñu ko ñoom dañoo am oto te amuñu énergie ñun ñoo am énergie te amuñu oto léegi ñoom dañuy tëggal programme yi lamb yi ngeen di gis nii yaa ngi di agressé ñi dax du trans lamb yeeg yenn événement religieux yi ngeen di gis ñu koy organisé bu tax de du ay événement religieux de ce sont des événements sataniques yéen ndaje yi ci ci yéen yi wallahi al azim yàlla taxul c'est saytaane lañ koy defal pour ndaje ma fay daje mbooloo ma fay daje énergie énergie ya fay bàyyi ko seen jinne yi dañ koy soxla pour dañ takk leen ay ndomba ko a mën a am doole gën am leen a <laughs> gàtt yañ fay rey euh, dend yaag coow yaag ñaan yooyu yëpp ay mbir la moytu leen seen bopp ngeen nekk nit yeewu vous êtes au vingt et unième siècle yaa ngi waaj a dem ca planète yeneen planète dëkk fa bañu fi yeewu leen nekk ay nit fu ngeen fekk am mbooloo mbooloo la fu ngeen fekk mbooloo bu ngeen ca tàbbee na ngeen di julli ci yam sallallahu alayhi wasallam di muslu ndax yàlla ci moo tëkk mbool mbooloo moom mën ci doon bu fa mënee wuutu bu leen fa dem bu dul menn mbooloo mooy mbooloom dem julli ji jumaa mbooloo mu ngeen di bëgg na nekk mbooloom julli ji jumaa waaye bu ko weesoo mbooloo mu ngeen tàbbi bu ngeen te ñàkk mën a dem bu ñu ko tuddee mbooloom diina bu ngeen fa demee na ngeen sellal tey julli ci yoon ba keneen ngeen fay jóge tey muslu moytu lekk yàgg yéen nañu dugal yooyu yëpp dara bari nañu ñàkk li ñu am ci yàlla foofu lañ ko ñàkkee ndax dañuy jàpp ne mbiru yàlla la fekk mbiru dajjal la mbiru seytaane ndax yàlla moom mënoo ko defal lenn lenn lenn lenn ci diinam ji lu dul da ngaa xam atte ya mënoo defal yàlla ci diinam ji mën na fi yow péegoo charia il nga xam fiq waaw ndax nga bëgg a wootee ci mbooloo ne diine ngay woote yàlla que ka te yow xamoo nu ñu jàppee xamoo nu ñu jullee xamoo lu farata julli xamoo lu farata jàpp xamoo sujjóotu qabla salaam yi sujjóotu ba'da salaam yi xamoo mosoo sangum néew dara dara dara dara nga ne yow yaay kilifa gi ci diine te yow li ñuy li diine soxla yëpp kenn du la ci gis foofu boo fay foofu boo fay dem da ngay xool sa bopp bu baax boo fa mën a bañ a dem moo gën ku fa mën a a dem moo gën Sénégal nak moy capitalu guiné mas nako ko fay wax yeen ñi may top du ñepp way amna ño ñoo xam ne commencé ba léegi ñu ngi ma topp ma ben yoon fu ma ne këri ñu ñoo taxaw ñoo ñe lay waxal ñoo ñe am ngeen sens yeen yéen mom amul lu ngeen luppé ci man yeen ma yeen man ngeen maa yeen yéen yeen xam ngeen ma mas na fay wax na Sénégal moy capitalu guiné ci aduna bi yépp mas nako ko fay wax ci live Sénégal Iblis ci waxam Sénégal la tek tank Iblis ma Iblis xam nga moo leen jur ñoom ñëpp Iblis Sénégal la dëkk ma nga Sénégal toog moom Iblis Sénégal mooy dëkkuwaayam Sénégal mooy capitalu planète planète bi saytaane yëkki àdduna bi yëpp Sénégal mooy seen capital xanaa xamu leen loolu xanaa war ngeen a xam loolu moo tax Sénégalais yi 16 millions Sénégalais yi ñoom jinne yi dañu leen xool comme ay gàtt bu ñu amee lu ñu bëgg a laxas lu ñu bëgg a def lu ñu bëgg pour am doole parce que ñoom dañuy force ñoom dañuy forcer yàlla ñoom ñoom jinne yi dañuy forcer yàlla ñoom waaw ñoom dañ koy forcer waaw da ngay bëgg benn mbir yàlla ne déet ñu forcer weñ la ko yàlla ñoom dañoo ñoom ñoom dañuy forcer yàlla ñoom jinne yi am nañ yàlla may na leen boobu maqaama xanaa xamu leen loolu jinne day forcer yàlla da koy forcer <laughs> ah jinne day forcer yàlla léeg da koy forcer dañuy fekk benn destin ñu forcer destin bi taxaw. am nañu boobu loolu nit mënu ko mais jinne man na loolu ndax yàlla moo bind nit bind malaayika bind jinne kenn ku ci nekk mu am lu mu def ci yow xel ni mu def ci nit defu ko ci jinne jinne amul xel nit am xel fi yàlla teg nit tegu fa jinne moo tax bu leen jaawale il faut ngeen xam nit ak place am xam jinne ak place am xam malaayika ak palaasam tant que mun leen a li lii mun leen a xam diine diine mooy nga xam mbindeefu yàlla yi njëkk kenn ku ci nekk nga xam lan mooy tabi am lan mooy nature am ak nga xam lan mooy mission nit jinne ak malaayika loolu yéen da ñëw na si yéen ñu ko ràññee yéen xamewu leen loolu da ngeen koy dégg rek jinne malaayika tout ça mais xamu leen parce que tant yi ngay dem boo xam Tuubaa la fi ngeen dem amu ci kenn ku leen koy faram-fàcceel gàmm yi ngay dem sama gàmm gii moo gën a wér gàmm yeeg seen màggal yi ngay dem parce que ñoom seen maam leen fa jaay man jaayu ma jaayu ma kenn xamul sama maam jaayu ma leen sama laa leen di jaay ak yonent bi ak leen jaay fi ak bëgg seen réew taxaw futteeku xeex ngir lan dund waaw ah, jinne yi dañuy forcé ndax jinne forcé mooy nga ñëw nga yow damaa bëgg alal ne ah alal yow mu yow sa wërsëg ah xool nañu waaye yow sa wërsëg mënoo ci am alal de ah damaa bëgg alal de ah waaw mën naa nekk de mën nañ la koo forcé nga am ko de waaye dafa am prix de nga ne ah ñu waaw waaye boo tey boo tey tàbbi sax ah ne waaw waaye mën nañu fexe ba nga nekk milliardaire moom yàlla dogalu ko de waaye mën nañu fexe ba nga am ay milliards am na ay pexe waaye dama ñu indil bakkanu bakkanu diw sa papa sa yaay jox ñu lii rayal lii dugal deretu diw waaw li ma leen di wax du dañ nga signé dem indi ray nit ñu dag ray ay nit dem ci hôpital lakk fa liir ya fa nekk yépp ñu ne yàllaa ya ko dogal yàlla juy fekk ay liiru tey xepp seen ndey leen xaaral mu boom leen lakk leen ba ñu xëm tey jooju yàlla boobu kooku seen yàlla du sama yàlla de nga dem joxe ko booy dee tàbbi sa jinne lo bëgg a jinne mën na la ko defal ndax yàlla ca bam leen di bind la leen yàlla may yooyu aptitude may leen yooyu capacité waaye amulu mucc amul mucc rëccu rek moo cee mucc rëccu rek moo cee mucc amul dem dikk ndax àdduna bi du kër te kenn du fi dëkk rëccu rek moo ci mucc ku nekk naan sëriñ bi dafa am maqama sëriñ bi dafa am wilaya yi sama sëriñ kër dara boo tëddee ba guddi boo demee këram boo jëlee fukki sëriñ wallahi al azim boo duggee këram da nga fa fekk juróom-ñett yi wala juróom-ñaar da nga fa fekk ab xërëmkat bu toog di ko xëccal di ko di ko xërëmal pour mu am doole fukk yoo jël juróom-ñaar ya xërëma nekk seen ginnaaw ñett yaa ca baax di sellal gëm yàlla di wax qaala allahu qaala rasul réew Sénégal ji laa wax de fukk sëriñ yoo jël juróom-ñaar yi dañuy fétiche lañu am ak doole jaak mbolam mak lañu leen yéene kër yu rafet yaak tax yaak bazé yaak xéssa bak parfum yu neex yaak alal ji bari jaak mbolam may takk ak daanu jaak yépp xërem rek fétiche seytaane déeta tabbi safara rek ñett ci baax ñett ci sëriñ ci ñi ci ñepp ay féticheur lañ wala ay pétition nek seen ginnaaw ñu di leen def fétiche pour ñu taxaw motax jigen baax na goor baax na seen diine yalla jooju yeen senegal diine seen ci ñu jooju ay da yalla baax na mëndumbe baax na sàmba jallu baax na xàmmeewul góor ak jigéen diine yi diine di diine seytaane la bu ngeen ci am baax na bu fekkee bu góor la baax na bu fekkee bu jigéen baax na taamuñ ci benn ah moo tax man li ma gën a ragal ci yàlla mooy tàbbi ci loola dee tey dee dee dee dee ñu suuli ma moo ma gën a doy ma tàbbi ci seen yooyu yàlla na ma ci yàlla musal te maa ngi ñaan yàlla mu musal leen ci yéen ñëpp yàlla na leen yàlla musal ci mbooloo moo xam ne ay caaxaan na ko la léegi ay féticheurs yoo xam ne ku gënee tàbbi safara yàlla na ci yàlla musal wax du ci gudd xale yi ngeen gis ñu dee liir yi ay sacrifice dañ leen sacrifier du mujj fen Diouf Sarr kenn du ko wàcce Macky Sall du dem parce que la muy laaj mooy ngeen xam comme ni ma ko xamee ñu jóg taxaw jëlee fi Macky Sall gis naa ñu bari ñu naan Diouf Sarr démission xamu leen xamu leen bu ngeen xamoon du ngeen demandé ay démission Diouf Sarr du ngeen xamoon Macky Sall mooy wàcc tant que Macky Sall nga ci ko bopp réew mi réew mi bu jur Sarr wàccoon tamit li du fi jog day amat parce que li tax muy amat moy ñom ñoko soxla ñom pour am doole pour nek ci bop réew mi te ki nek ci bop réew mi ci non la falo limu am ci réew mi ci non la ko amé bam fi toogee ba léegi ci non la am fi mu jaar yépp ci ablay wad ba ci ba yo ci réew mi lii la ko amé xërem fetish bu ko baax tank ñi ngi ci bop réew mi ko ñu ay yat jëlé ko fa tank lolu amul du ngeen noppal bu dul jigen ñi ray di ay góor yu ñuy am na si ñoo xam ne ci accident lañ ko def ci accident saa su ngeen gisee ci jiite réew mi tuité nit dee wala nit am jafe-jafe ba ngeen gis mu tuité tuit saa su ko defee rek waxul ak yéen am na ñu muy waxal am na lu xew saa su ngeen ko gisee nit dee ci Sénégal walla ci àdduna wala fenn ngeen gis mu tuité naan maa ngi naqar lu kërë kërëb loolu plan la am na lu xew loolu seen loolu seen dil la mu tuité rek am na ñu ñuy waxal ñu nekk ci dil bi waaw ah. dañuy wax ñoom dañ ñoom dañoo am langage codé dañuy tuite am jour yoo xam ne ci lañuy def li ñuy def am weer yoo xam ne ci lañ koy def am waxtu yoo xam ne lañ koy def am ay nit yoo xam ne ñoom lañuy jël sacrifier leen pour lan pour pouvoir bi ñu bëgg am fi ko toog di toog ci pouvoir bi daa iman ñoom dem ba léegi ñu ngi agressé nit ñi ci réew mi fii amna ñu ñu feree ci réew mi agression bi da ngeen ci dégg kenn est ce que ñoom wax nañ ci agression bi da ngeen ci gis Macky Sall def ci benn tweet du ngeen ko dégg de waaye keroog ba Rayane xale bi amoon juróomi at Maroc dugg ci teen boobu ñu dafa dugg ci teen bi <laughs> gars yi di jooy naan Rayane Rayane ma leen yéen dem leen tëddi nelaw <laughs> ñaan ñi ngi koy xoole fi Sénégalais yi kenn ku dégg di ma yéen daal xam naa ne lapp làppatu daal xam naa ne nekk làppatu boobu yéen xam leen lu xew <laughs> Macky Sall def tweet mais ñoom ñooñu neen la xam nañu xale bu am juróom mais pédophilie mais <laughs> subhanallah yàlla yàlla daa xam naa moo bari sutura damaa xam ne li yàlla nëpp lépp ba leelu ci doomu aadama yi bu ko yàlla muri woon ba nit xam li xew waaye kon àdduna bi day tas rayaan jamono yéen a ngi koy fàttali tuuti ba ca Macky Sall defoon ah, ah, ah, <laughs> hmm. subhanallah lépp kenn mënu ko wax am na ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy lekk nit am na ñoo xam ne pouvoir yi ñu bëgg dañ dañ naan leen il faut que ñu jël nit rey ko togg nit ngeen lekk deretu nit naan deretu nit am na ñoo xam ne man xam naa ci réew mi ñoo xam ne duñu sangoo ndox deret la ñuy sangoo deretu nit deretu nit la ñuy sangoo ci réew mi fii te ay milliardaire lañu mais deretu nit la ñuy sangoo sangoo ndox dañuy dugg seen duus ci wóot deretu ndox deretu nit ñu sangoo ko ba noppi bu ñu noppee as ko tànkaat ko defaat ko ci suuf bu ñu sango moom la ñuy sangowaat mais bu ñu génnee bu ñu la rombee parfum yi ñuy parfumé wu parfum yi ay parfum wu cinq millions parfum wu dix millions parfum yoo xam ne bu ñu ko sotti ko man parfum yi même bu ñu sanguwul un an du ñu am xet parce que deret yi ñuy sangoo moo tax il faut ñu def ay parfum yoo xam ne parfum yu cher <laughs> parce que seen jinne ñu leen ko sant subhanallah am na ñoo xam ne Sénégal fii dañuy lekk nit pour am pouvoir pour mën a am doole am daraja nekk ay kilifa nekk ca kaw nit ñu topp leen di leen sukkal ak raamal ak yëpp ak bu ñu génnee yor pouvoir yor xaalis ñu naan daraja kër kilifa kilifa ñi ngeen tudde kilifa ci réew mi la leen def kilifa du jàng du diine du xam-xam la leen ko def mooy am na ci ñenn ñi dañuy lekk ay nit ñi dañuy sacrifier ay nit loolu moo am ci réew mi ki leen jaaxal nag mooy Ousmane Sonko moom moo leen të nañ ko ci lu seen jinne yi ñoom wëlbati nañ ko bu ne ñu ne ñu ne seen jinne ne waa ji moom waa ji moom mënuñ ci woon dara rek gu ne wëlbati nañ ko Ousmane Sonko moo leen tëj Ousmane Sonko nag mooy daj ji seen mbir moo tax fi mu toll jamono yi seen lépp lañ yëkkati xam nga ñoo sës seen arsenal yëpp lañ yëkkati moo tax Bamba Fall dégg nga waaw Abdoulaye dégg nga naan wow, es que, wow, yang mohon yang nyil deh, dia deh, Nah, kere kere, wow, nyongi, nyongi, akak es man songko deh, mikro, mik, jine ya jibi, mana, Ya lagi jibi mikro deh, mikro deh, dengan ya. <laughs> subhanallah, cet, cet, cet, cet, ya, ya lu ngomong dua deh, isu deh, isu deh, ya deh, usman songko deh, boleh, kita hialu yuni usman songko deh, kisian kau, mooy Ousmane Sonko da leen a gën a ragal yàlla man ñun ñëpp dañoo gën a gëm yàlla gën ñu ragal yàlla Ousmane Sonko mi ngeen gis ni yàlla ko da nga naan fital parce que dafa wóolu yàlla dañoo dañ signé pacte ni ñoom Macky Sall signé ak yenn sëriñ ci niñ signé pact niñ signé ak shaytané non la Ousmane Sonko signé ak yalla am nga xam signé ak yalla mom am nga ko ko ay waxam ngeen waxatu ko signé ak yalla Bamba fal mëno ko jëw motax mané delu len ci yalla ngeen defara sen togaay jël sen bop delo ko ki nga xamné mo len mom lolou sax lolou sax lolou sax musiba la limay wax ni musiba gu rëy la ndax yalla mom la bind la moomale la boppam nga dem a dem a dem yow ba bàyyi fa yàlla am foo dem bay dellu si te dem rek waru la woon ku warul woon a dem bay dellu si musiba am na est-ce que yéen ngi may dégg yàlla nee na man maa leen bind pour ngeen jaamu ma man yéen samay jaam ngeen lii mooy sabab bi ma bind leen wàcce leen ci kaw suuf tabax àdduna ak àllaaxira bind bind bind bind dee defal leen lépp li ngeen soxla dox leen xel dox leen ngeen ruux jël jaww ji def ci oxygène ngeen koy noyyi ma tàggatal leen garab yi tàggatal leen bàyyi ma yi ngeen ci rey di di jëfandikoo ma suturaal leen yëkkati leen lépp lu ma mës a bind avant yéen yëkkati naa ko ba ngeen ñëwee ma wàcce ñëpp yëkkati leen jox leen loo xam ne joxuma ko kenn ndax lan ngeen may jaamu képp man borom bi subhaanahu wa taala ñu dem dem di jamono ba ñun ñi ba ko fa ñun dem toppi ay nit ba mu man tey ma ñëw naan dellu si leen ku wóolu woon a dem ku wóot a dem ndax war ngaa dellu si koo xam ne yow amoo sañ-sañu jóge fi nga taxaw nga dem ruur ci tolu jàmbur bi ba ñu lay gindi nan la delu sil musiba am na musiba na musiba na kon nañu moytu suñu buy dee ñu naan yàlla na ko yàlla yërëm yàllaa ko rey ndogalu yàlla la lan mooy ndogalu yàlla fukki xale nangam yu dee ci ab hôpital lakk ba xëm ba jeex tàkk ngeen na yéen seen yàlla ji moom moo yor pétrole ak almetam di dugg ci hôpital yi romb fi ay ponkal yu mel ne Macky Sall ak i sëriñ yoo xam ne amuluñu yàlla njariñ réew mi ay ponkal yu fi nekk yoo xam ne njaaloog naan sàngara ak firis mooy seen liggéey yàlla bàyyi leen fa ñooñee ñoo yàlla xanaa bu doon rey xanaa ñooñu lay rey ñu ko amaluñ njëriñ bu baax fa ñooñu fekk ay xale yu tooy xepp xepp xepp yoo xam ne amaguñu benn bàkkaar nga xam ne ñoo ñooñu àjjana lañ jëm yàlla fekk leen fa lakk leen ba ñu xëm ngeen na yéen yàlla moo def loolu yéen yéen da ngeen maa tooñ sama yàlla jigéen ñi tooñ sama yàlla ji ma am man deful loolu loolu yëfi nit la du yëfi yàlla loolu yéen nit yéen da ko tuumaal waaye mi ngi leen di dama yàlla jigéen di tuumaal bés bu nekk lu am ci réew mi ngeen ne moo ko dogal mi ngi leen di xaar wallahi da ngeen layoon moom dem leen rek mu bind leen bind ma jox leenum xel yéen jox mam xel wàcce alquran yónni ay yonon xam ñu xamal ñu lu baax ak lu bon mu jàngal ñu jox ñu dox jox ñu dig daje ëllëg bisu peñ ngeen toog fii naan yàlla mooy dogal lu am ci réew mi ngeen yàlla ko dogal ba ci xale yi dee ngeen yàlla ko dogal seen jabar yàlla ko takk bu guddee bu ngeen di dóori ndigg seen jabar yi du kucc kucc kucc kucc ba doom ji duggee loolu yàllaa ko def seen ndóol gi yàllaa ko def seen am gi yàllaa ko def làppto gi ngeen doon yàlla leen ko def xam ngeen ñàkk xam nga yàllaa ko def bëgg ngeen ñàkk bëgg yàllaa ko def waaye yéen kon fekk yàllaa dogal lépp seen xel yi lu mu leen jëriñ xel yi yàlla def seen bopp yi lu mu jëriñ pour lan la yàlla moom dafa am jot am temps am lu muy yàq ba créé lu mel ne am xel nga xam ne mooy li gën a réy yàlla créé am xel du nit de yàlla lim gën a rëy ci lim xiree mooy xel du nit de jëmm ji boo gisee mu yëkkat doomu aadama xel moom ko dëxañ moo tax yàlla bu rocci woon xel mi rek doomu aadama dootu ko amal benn njëriñ loolu moo tax bàyyi ma yi amaluñ ko njëriñ bàyyi ma yi nga xam daf leen a daf leen a am leen a xañ xel loolu moo tax mu ne day leen ki lekk <laughs> nit ki bu ko yàlla génnoon xel xanaa xamoo nit xel moo tax kenn mënu koo lekk bu yàlla génnoon rocci woon xel ci am nit daa nekk nga mën a lekk nit ndax nit boobaa day mel ne bàyyi ma yi moo moo moo xar yeeg bëyee yam kon li tax nit nek nit li tax yalla fonk do mo yi du jëm nit waye xel mom ci dëxëñ moo tax yéen seen xel mom ngeen jël ko sané ko ci Allah ba ndax lan daw responsabilité lu ñu ngeen yalla lu bon lu ne ngeen yalla lu baax lu ne ngeen yalla lepp dal yalla yeen dal daal vous responsable en rien yeen dal bu yobul xiyaba yalla day ñëw rek ubbi seen dossier agena agena agena agena parce que yeen defu leen dara lepp mën ma yéen ma yéen dama leen bàyyi ji àdduna bi njaalookat yi sàcckat yi agresseurs yi Macky Sall ak ñiy fétiche ak ñoom ci naxaatekat yeeg sëriñ si lekk addi yeeg yéen ñëpp fenkat yeeg rambaajekat yeeg njaalookat yeeg sàcc yeeg ñëpp daal dara yéen ñëpp loolu lépp du dara man man yàlla man yéen a ko wax man yàlla maa ko def àgg àgg na yéen ñëpp man léegi yàlla man maa gis sama bopp yéen daal yàlla jooju ngeen am man ooma jooju yàlla de yàlla jooju tànk mi ngi ci réew mi du ngeen jóge ci ndóol du ngeen jóge ci dee ci ak hôpital yi du ngeen jóge ci ak lakk du ngeen jóge ci ñàkk courant ñàkk ndox ak ndóol du ngeen jóge ci nekk ay làppata nekk ay jaam ay esclave daiman parce que déggu leen yàlla xamu leen yàlla déggu leen alquran yi ngeen di jàng gënu ngeen ko jàng ba tax ngeen ko jàng ma ngeen xool ngeen ngeen koy jàng lii du lu alquran du luñu ñuy jàng du ko mokkal ak tari amul njëriñ alquran lu ñuy dégg la ak lu ñuy xam waaye du lu ñuy jàng ka rafetatatatatatat amul njëriñ mënoo cee jënd miisu mburu mokkal kaamil bi kaamil bi yépp nga di ko tari mënoo cee jënd miisu mburu parce que jàngal alxuraan du métier du farul ay ni farul kifaaya du métier jàngal alxuraan du jàngal alxuraan du métier voilà ngay ponkale ko jëm seen àdduna yëpp ñu bëgg ko teg ci jàngal alxuraan toog réew mi koy tabax jàngal alxuraan gu koy tabax kan moo koy tabax ku nekk nekk ku la dàqa ne moo la gën a nekk nit nag moo la dara nag nga tubaab gaz ba pétrole ba ca géej gi tubaab yow mi toog yow di fa xuraan tubaab bi dem sol kilo tam moom génne ko def ko def ci ay milliards yóbbu am réew nga toog fa yow parce que déggu leen diine moo tax yàlla yonent yi mu wàcc jinne yi mu bind malaayika yi mu bind leen yónni àdduna bi mu créé alam bi bàyyi ma yi rab yi garab yi ndox mi ngelaw li lépp lenn moo tax mu def ko mooy xel xel moo tax mu def ko bu bu yàlla bu inventé wu woon xel du inventé àdduna ndax àdduna ku am xel rek moo fa moo dugg loolu moo tax képp koo xam ne sam xel dem na yàlla dootu la togg jëf <laughs> man mii di wax nii maa ngi wax a yéen bu ma xëyoon tey dof bu ma xëyoon dof dootuma defati benn bàkkaar dof yi amuñu bàkkaar amul benn dof bu am bàkkaar bu ko neexee julli bu ko neexee bu ko neexee bu yàlla topp ko dara ndax xel maa dem kon yàlla du jëmm yi ñoo ko am a njëriñ yàlla xel yee ko am a njëriñ yéen ñi jël seen xel yi jox ko ay ñàkk ngeen yàlla yàgg na ndax yàlla xel moomul xel moomu mooy xikma bi xel moomu xel nga xam ne tubaab yaa ngi fi jéem lu ne pour créer xel machine bu mel ne xel mais ba àddina bi tukki duñ ko am ndax xel mooy lu kenn mënut a inventé xel kenn mënu koy inventé donte am nañu des avancées énormes sur la physique quantique yu leen mën a permettre tey xam nga ñu mën a créer des ordinateurs extrêmement puissants mais mënuñu créer ay algorithme yoo xam ne mën na jël en considération l'ensemble des combinaisons des milliers de maanaam des combinaisons à l'infini xel mooy loo xam ne lépp loo xalaat ci àdduna xel mën na koo dëxëñ ba loo xalaatagul sax ne mën naa nekk mi ngi ci biir xel xel mën na ko xel mën na koo mën na ko mën na koo fànn loolu loolu maanaam maanaam loolu yàlla rek ko mën yàlla képp képp képp képp moo mën loolu kenn mënu ko yóbbu waaw loolee di xel nag nga xam ne moom rek moo ko mën a créer kenn mënu ko inventé moom képp moo ko mën ndax tubaab bi mën naa créer lu mel nit robot yi ngeen fi gis gis robot am tànk am kii di wax robot day wax tout ça waaye am xel <laughs> caaxaan baaxul foo baaxul nit du caaxaan dund dafa cher dund c'est une séquence boo xam ne dafa am loolu mission yoo ci war a dox boo ko sàgganee ba dee musiba am na dund dafa cher lu am ci réew mi ngeen na ndogal yàlla te ñi leen koy waxloo mooy ñi nekk ca kaw ne nangu di fétiche yor alalu réew mi téye ko nappaajee seen i jeeg moo xam ci côté sëriñ si la moo xam ci côté politique bi yéen baadoole ñu def leen ay taalibe ki làpp ngeen nekk ci seen i programme di dox guddeeg bëccëg politique wala confrérie yi ngeen nekk seen i programme nekk ay làppato daa iman seen doom yi ku juddu ngeen ay làppato ngeen di jur ñoom ay sëriñ la ñu jur yéen ay làppato ngeen di jur daa iman génn yàlla moo ne ko jàngal fan la ko yàlla jàngale fan la yàlla jàngale ne xeet wi day nekk xeetu jaam daa iman xeet wi day nekk xeetu buur daa iman fan la yàlla wax ci alquran ne xeet wi day nekk xeetu sëriñ daa iman xeet wi day nekk xeetu taaliba daa iman loolu lii ngeen bëgg a saxal ci riiw mi fan la ko yàlla bind fan ngeen ko jëlee lii fu mu jógee ak kat alaaji Mali jàngale wu ko sëriñ Tuubaa jàngale ko kenn ci ñoom jàngale wu ndax alaaji Mali li mu doon jëlewu ko ci bàyyam maam Ousmane Sëriñ Tuubaa li mu doon jëlewu ko ci Mamour Ansali kon lii ngeen bëgg a saxal tey ne doomi Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa la surtout Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa la ngeen bëgg koo saxal bu dee dëgg Sëriñ Tuubaa day doon Mamour Ansali Sëriñ Tuubaa du du Mamour Ansali ndax bu Sëriñ Tuubaa nekkoon Mamour sali ngeen xam Mamour sali njëkk Sëriñ Tuubaa te jébalu woon yéen ñi murit amu ci kenn ko jébalu ci Mamour Ansali yéen ñëpp Sëriñ Tuubaa ngeen jébalu ndax li ngeen wax bu doon dëgg nit ku ne sa doom ngay jur kon kay du ngeen jébalu Sëriñ Tuubaa te maam moo ànd ngeen di jébalu la moo def leen bu leen nax yow mi ne doomi alaaji am alaaji Malick la du dëgg da ngay naxaate du dëgg bu doon dëgg leen nga jébalu ju te maam Ousmane Sy ma jur alaaji Malick du dëgg comme nag maam Ousmane Sy du alaaji Malick maam Mor Anta Sali du Sëriñ Tuubaa kon doomi Sëriñ Tuubaa c'est pas forcément que Sëriñ Tuubaa la doomi alaaji Malick du du du du c'est pas force que doomu alaaji Malick alaaji Malick la mën na koo nekk nag waaye du systématique du loo xam ne c'est automatique ndax nekk nga ma nga aju ca dundin wa ma aju ca càkkutéef ga ma nga aju ca taxaw temb ga ma nga aju ca pasteef ga ma nga aju ca teg tànke bee ca foofee ba mën a doon loolee li ngay doon du looy judduwaale li ngay doon looy jóg di sàkku di ko wuti la jaayante ceeg sa borom noonu la Sëriñ Tuubaa def maam Mor waaye ba mu bëggee doon Serigne Touba mi ngeen xam dafa am lu mu jaayanteeg war moom ba mën koo am aju ko ci Maam Mor Anta Sali mu jur bu ko fa ajoon lii mu bëgg ci yàlla ci Maam kon yéen du ngeen ko xam kazalika Serigne Seydil yàlla jaayante ba borom moom bu ko ajoon ci Maam Ousmane Séré rek ma jur kon kenn du ko topp bàyyi leen seen tappale seen caaxaan yi ngeen nekk lii may wax nii wallahi azim bu Serigne Touba ñëwoon sama côté lay toog fii ma toog lay toog ànd ak man ci di ma dooleel bu yoon sallallahu alayhi wasallam ñëwoon lii ma wax lay wax bu yàlla ñëwoon man lay àndal man mii man képp nag kenn àndul man ci li may wax waaye li may wax ba jant bi di wàcc kenn du ko daj kenn du ko daj mën na laa neex nag wala na naqaree wala nga diaboliser ma waaye doo ko fi jëlee nga ñëw da ngay tabax hôpital juma tabax yi juma yi milliards tabax ay symposium ak yi def ay projet xaw ma ñaata milliards rek yu kenn xamut te boo génnee ci mbedd mi nit ñaa ngi dee Sëriñ Tuubaa ne nit jullit Sëriñ Tuubaa ko wax de jullit wóote dëkk ci dëkk boo xam ne boo woppee mënoo faju ab nit jullit fu mu dëkk rek bu amee tawat war naa mën a faju war na mën a faju kon war na mën a am ku ko faj mu ne ab jullit wóote mën a dëkk foo xam ne bu bëggee am lu mu jëfandikoo lu mu lekk du amu fa te mooy ab jaba xaw ma ndax xam ngeen jaba ab dëkk day am fajukaay day Amu jaba waaye ab dëkk day am karange karange ñoo ñett yi bu mu amul ab julli waru fa dëkk ab julli day dëkk fu am karange fu Amu jaba ak fu am fu ñu mën a fajoo mooy hôpital marché ak sécurité ñatt yi yëpp may wax amul Sénégal benn amul te yéen yéen Sëñ ngeen gëm waaye léegi lu ngeen di xaar pour jëmmal loolu mën leen a jóg ñun ñëpp ñu jóg taxaw xeex loolu pour loolu am ci réew mi lu ñu ko jëmmal loolu lu tax jërëjëf euh, Mohamed Wan waaw nee na joba mooy joba mooy marché waaw man nag damay man ab kaw laa man may damay làkk wolof de tabax juma bàyyi hôpital waaw loolu loolu loolu xam nga loolu mooy loolu xam nga loolu maanaam yow nga ne da nga jaamu yàlla ñoo la waaw acce fooy tàmbalee nga ne damay tàmbalee ci sunna yi damay <laughs> tàmbalee ci sunna yi ñu ne ah sunna sunna baax na lool si dëgg-dëgg waaye nag nit nag balaa dund sunna nag day dund farata ba noppi ndax sunna nag moom ay ngëneel la luy dolliku la waaye nag farata bi li nga xam ne mënut a ñàkk moom li nga xam ne moom obligatoire la waaye nag kuy jaamu yàlla nag kuy tàmbalee xanaa foofu ngay tàmbalee nag ku bëgg a dem ci yàlla da xool li yàlla santaane ne force dañ ko war a def muy li nga xam ne obligation la da def am du du la wàcc lu dul am ay gàllankoor lay wàcc yenn yi da yenn yi lay wàcc yi da koy leb pour fay yenn la wàcc da koy def ak ki façon ñett yi ñu am bi lay wàcc bi ngay boru fay ak bi nga xam ne dañ lay soppi defin wax nga defee ko neneen ndax dafa am gàllankoor loolu mooy faratay li ngi des nag moom day sunna loolu moom loo ko def mu dolli ko di aw yiw boo ko deful du la wàññi dara ndax sunna la sunna la boo ko defee baax na boo ko deful du la wàññi dara waaye faratay moom danga kooku moom du la wàcc waa léegi nga ne yow da ngay jaamu yàlla au lieu nga tàmbalee jàng faratay yi nga xam ne mooy obligation yi nga ne yooyu déedéet yow doo tàmbalee foofu yow yaa ngay faral ci li nga xam ne yooyu yooyu sunna la <laughs> loolu am ci réew mi wala tabax hôpital hôpital liggéeyukaay jàngukaay marché bu ñu jaayee lu ñu jëndee pour mën a jëfandikoo kaaraange ci am réew kooku farata la farata la moo tax ministères yi bu ñu koy tëgg daf ci am yenn ministère yoo xam ne moom lañ tuddee les ministères régaliers ministère yi te loolu ñu dara jëlee ministère yi état du ministère yëpp toll ñëpp ay ministre lañ waaye ministres yi dañoo ëppante dara jë est-ce que xam ngeen loolu lu tax parce que fànn yi dañoo ëppante dara jë ministre bi yor santé wér-gu-yaram ministre bi yor forces armées mooy kaaraangay réew mi ci wàllu biti ku bëgg a jóge ci bitim réew ñëw attaque réew mi mooy forces armées armée ministre bi yor intérieur mooy ministre bi yor kaaraangay biir réew mi biir réew mi bokkul ak bitim réew mi ci frontières yi armée mooy aar réew mi ci ku bëgg jóge ci biti ñëw dugg ci réew mi faagaagal ko kooku armée moo ko yore mooy bitim réew frontière waaye intérieur mooy ministre bi yor kaaraangay biir mi ki nga xamne ne moo ministre du budget budget copar bi ak ki nga xamne ne moo ministre des affaires étrangères moo yore ministère bi nga xamne mo yor leunkelo gi Sénégal réew mi leunkelo ak moreen réewum ci bitim réew ci walu demalante dikkalante waxtaan ak andando ak dimbalante ci walu copar ci walu xam xam-xam ci walu jammo ci walu nek ay xarit nga xamne affaire étrangère mom moy mooy yore loolu ministère yi ma len wax yëpp c'est des ministères régaliens de l'État mooy ministère yi ëpp la ci état éducation il a bok am jang ministère de l'éducation éducation a bok am jang té fondamental motax do ko jox ku melni Cheikh Omar Anne jaaykatu ñebbe wala nga koy jox Mamadou tala, motax dañuy grève rek pos yi gëna am solo ci réew mi la makka Sall jël jox ko ñi gëna a ci réew mi ay Cheikh Omar An, ministère de l'enseignement supérieur am ngeen lan moy l' enseignement supérieur koku c'est la crème de l'enseignement c'est la recherche. c'est le développement c'est l'innovation c'est la technologie c'est la science Je jox ko jaaykatu ñebbe Cheikh Oumar Anne ngeen na yéen réew mi day dox kan noo ko Marie Théou professeur de mathématiques agrégé un homme exemplaire xam-xam yëpp Macky Sall ko ngeen jëli Cheikh Omar Anne jaaykatu ñebbe jox ko njàng mi gën a kawe ci réew mi nga xam ne kàngam yeeg savant yeeg borom xam-xam yi war a xëcc ci réew mi mu soqaliku fa la ñu war a génnee daara ju kawe jooju mu génne ki nga xam ne moom loolu muy métier loolu jàng di mathématicien bu rëy agrégé professeur Mary Teuw Niane Macky na ko soxlawu ma la ndax man bëgguma borom xam-xam bëgguma ko tabax réew mi bëgguma ñuy jàng damal toog fële yow dem dama lay bedd def la PCA jël Cheikh Omar Anne xam ne am njàngam bëtul buy làkk tubaab da nga naan kii fu mu jàngee buy làkk Cheikh Omar Anne benn phrase bu jub mënu koo wax jaay ñebe moo nekkoon liggéeyam kudd Macky Sall ñëw jox ko njàng li gën a kawe ci réew dul seetlu di ngeen def ay taxaw seetlu moo tax waaye lu xew rek da ngeen ci am émotion bu defee ñaari fan ngeen fàtte ko jàll ji leneen mais amul lu ngeen topp ba mu jeex. réew moo xam ne nit ñi dañoo war a jàngi farata bàyyi ñi bàyyi fa farata bi dem di jàngi sunna ci awoon. Tiwaawan nga xam ne lu dëkk Seydi Hadji Malick de moomul Tiwaawan de dafaa ñëw fekk fa ay nit yu fa dëkk yàgg yàgg Tiwaawan dëkku ceddalo mu ñëw dëkk fa nekk ñoom nekk ñoom nekk ak ba tey ku ne Tiwaawan Seydi Hadji Malick du tax parce que dafa am lu mu fa ji la mu fa ji nag loolu xam-xam li jiitu ci xam-xam nag mooy jàng farata ëttu Seydi Hadji Malick boobu Tiwaawan googu la fa nit di njëkk mooy farata toog ci teg sunna waaye yow nga ñëw yow bàyyi farata ba fee def sunna mooy lan bàyyi hôpital yi bàyyi sécurité bi bàyyi njàng mi bàyyi xëy mi te yooyu nga war a taxaw ba mu mat Tiwaawan nga bàyyi ko fa ci tabax ay symposium yoo xam ne boo amee événement ba événement ñu ne lan pour teral pour pour dalal ay gan waa waaw yow xam nga mën a jëlee ay milliards yow da ngaa li nga am doyul nga jël loolee lu cëkk loolee di ko def ci loo xam ne at baat boo ko def wala ci at mi ñaar ñett yoon nga koy ubbi mooy jël am taax def ci ay milliards moo xam jumaa la moo xam ab symposium la moo xam salle yu la Macky Sall jox yëpp nga xam ne xew ba xew nga koy ubbi nga def fa ay milliards waaye fi nga xam ne fi la nit ñi dem bus bu nekk te mooy hôpital bi nit ñi dañuy wopp képp ku ne xam nga lan mooy wopp wopp dafa metti bu la dalee da bëgg a jóg ndax sa njaboot lu bari da caa aju wér ku ne xam lan moo nekk ci ak wér hôpital ñaa ngi dugg ko génn bus bu nekk loolu waroon a nekk farata yow nga fexé ba hôpital yi baax ndax moy li nga xamné nit mënu ko ñak mi ngi ak wan ak ci kër hôpital ci ab dëkk wan ak ci kër ñoyam dëkk bu amul hôpital bu baax moy kër gu amul wanag léeg-léeg nga bëgg dem ginnaw kër te amoo ak gis nga nim nekké mo dëkk bu amul fajukaay ñoyam nga nekk ci dëkk bi am fa kaddu war mëna taxaw lu bari nga war ko mën pour dëkk ba dem nga taxaw lank nan damay tabax ay salaki ay parasol yu ubbeeku tëjee ki jumaa yi vingt milliards ki te yow jumaa ji imaam bi ngay jiitaloo ci jumaa ji bu daanoo syncope jumaa hôpital bañ koy buy aggride jumaa ji nga tabax yow vingt milliards ku fa daanu ñu yóbbu ko ci hôpital maam Abdou Bey booy aggride loolu Seydil Hadji Maalik jàngalewu ko fenn te du ko def bu bu ko fekkoon tey du ko def lii ñu def bu bu fi nekkoon du ko def kenn du ko wax mën naa koy wax mun maa leen koy wax boo ko waxee nag làpp tey dugg dugg saaga dugg ci suuf si ruuru waaye waaye ma ne dem leen ba ci taatu géej ga bu ngeen mënoon da ngeen ruuru ba ci taatu géej ga jàpp ci jën yi génn sama yoon nekku ci dee leen da seen xol yi dagg saagal leen ru maanaam mbëkk leen dugg leen ba ci taatu géej jàpp ci rek yi génn mënu leen bu ngeen mënoon da ngeen nëpp da ngeen li may wax bu leen naqaree dem leen ngeen dugg ci géej gi ruuru ba ci biir géej gi da ngeen nekk nit par force wala ngeen nekk ay dof daa iman dee tàbbi safara mënu leen ci dara kon foofu laa yem ci xamal ne lii xew ni mbir la moo xam ne ñoom ñi ngeen tudde kilifa xam nga réew mi dañuy kilifa la ndax da ngay am kilifa réew ko bëgg a baax da am kilifa <laughs> subhanallah te bu xam xamoon ñi ngeen tudde kilifa yi ci lu ñu nekk ñi ngeen jàppee ay kilifa bu ngeen xamoon li ñuy def bu ngeen xamoon ci li ñu nekk da ngeen def seen bopp yi kilifa wala ngeen jàpp seen wajur yi fonk seen wajur yi bu baax seen ndey ak seen bàyyi fonk seen ndey seen bàyyi bu a baax a dellu ci seen ndey seen bàyyi dellu ci yàlla ak gëm ab yonanteem jàpp seen alquran bu ngeen ko xamoon da ngeen def loolu waaye nag xamu leen ñàkk xam gi tamit xamu nekk texee ñàkk xam gi mën naa nekk mu nekk mandargay texee di waaw ndax nit ku ne la texee mënoo muusa ko macar ba mu texee bokk na ci mandarga texe di nga fekk koo xam ne wóor na ne kii li mu nekk yàlla gërëmu ko nga di ko jéem a dimbali di ko ca jéem a biir ngi mu jóge ca mu def la ab noonu fas yéene laa rey ndax bañ a dégg sa kàddu ndax dëgg li ngay wax bu jibee xol bi lay nekk fer ferñeent di ko ràpp ci ràpp ràpp ci xol bi kooku mandarga ku texee di ngay gis jëmm jooju bu déggee dëgg rek xol bi yàqu bu déggee dëgg rek commencé baax bu déggee dégg rek aw tàngoor dugg ko kooko commencé na feeñ ci jëmmam joojee mandarga yi wane ne kii ku texee di la kenn mënu koo musal yom la xiyam du texe kon na ngeen xam ne lii fi xew ay nit ñi ngeen tudde kilifa ñoo nekk ci ginnaaw def ko ñooy ñoom ñoo ko def ñax ndax seen i énergie ak seen i fétiche ñooy wëlbati ko bët seen i bët di jooyee ko jaalee ko yu kenn xamule ko di joxe ay leçon de morale ñi ngeen fi dégg ñu joxe dama leçon de morale ñëpp ay féticheur lañu moo xam sëriñ la moo xam politicien la loolu leer laa leen wax de la ñuy dox c'est des grands féticheurs amuñu amu ñu maqaama amuñu dara lu nekk ci ñoom buñ ko amoon ñu xam ko ñu xamante nañu ñoom ñi fi nekk ñëpp ñu ci ëpp bokk ak wilaya amu fi ak xërëm fi nekk ñu tënk ci doomu aadama di leen nax di leen mën dañu am baatin may leen déedéet amuñu baatin de baatil la ñu am baatin ak baatil bokkul bari na fi ñoo xam ne baatin lañu ñu amee ngeen jàpp ne dañoo am baatin loolu nag ñu ngi suñu kanam kon émotion yeeg yi xew ak yooyu yëpp benn jubluwaay la war a am mooy jóg ñu ñëpp taxaw xeex jëlee fi Macky Sall ndax moom mooy chapiteau bi nga xam ne ah moo nekk ca njombatal ga ca kaw moom moo tiim lépp système bii si système satanique bii di dox. système mu fétiche bi di dox ci réew mi yëpp mu ñoom ñëpp ñu lëngaloo dañuy ñoo bokk sëriñ de Macky Sall ak yenn sëriñ si ak ak ak ak politiciens yi ñoo bokk sëriñ féticheurs yi dañ koy paasante tànk dajji wuñ leen sànn ci àll ba ca sën ba réew mi di dox te loolu xeex rek moo ko joxe lu fi waay di jàng ci réew mi xeex moo ci gën valeur bu fi nit di am bu dul valeur mën a xeex amoo valeur réew mi li fi nit di jàng dëgg dëgg dëgg dëgg mooy amu fit te ñemee xeex pare pour dee tànk amuñu fit pare wuñu xeex pare pour dee duñu pare pour dund képp ku bëgguta képp ku parewul pour joxe sa bakkan bi ngir dund doo dund dund pare pour dee mooy tax nga dund képp koo xam ne sa dund gi nga bëgg dund pare woo pour joxe ci sa bakkan bi ndax nit ki loo gis ci àdduna dafa am njëg ki bëgg a dund dund dee mooy njëgam képp ku bëgg a dund dund gu baax il faut nga pare pour teg sa bakkan bi ci taabal ci xeex boo xeexul doo dund dañ lay takk ba nga ne koodu def la ak jaam bu ñu deful jaam ci politique def la daa jaam ci ab tareexe du mën a diine ndax moom yàlla dafa yónni yonent yi pour ñu tënk jaam yi yàlla yónnewul kenn pour mu nekk ay jaam yàlla moom ñun ay jaamam lañu donc indi wu fi kenn pour ñu nekk jaamu keneen moom moo ngi def jaam ca njëlbéen moo tax yónnewul diina ji indi wu fi kenn yow sallallahu alayhi wasallam duñ jaamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yónni gën di du ma jaamam jaamu Sëriñ Tuubaa ak jaamu Alaaji Malik jaamu Limaamu Laay yonent bi yàlla nga xam ne Sëriñ Tuubaa nee na man maay mindaat yonent bi man yonent man du jaamam man jaamu yàlla la benn benn benn borom laa am mooy borom bi subhanahu wa waaw ndegam man maa mënut a nekk jaamu yonent bi nga xam ne Serigne Touba min na la naka laa mën a nekk jaamu Serigne Touba ak jaamu Alaaji Malik nga dawal leen seen xel yi ngeen yeewu dawal leen seen xel yi ngeen yeewu dellu ci yàlla yàlla wàcce yërmande ci si kaw réew mi ñu mën a dund jàngi leen xeex li ñuy jàng ci réew mi mooy xeex képp ku mënta xeex doo dund adduna bi moo toll noonu lépp xeex a koy maye lépp xeex a koy maye ku mënta xeex daañu la takk ba nga ne ko du suuli la wala ñu def la ab nga yenn nit ñi di yóbbu ko ñëw ku ko mën nag yaa xam man du ma nekk jaamu kenn damay xeex ku dund su ma mënta xeex ku dund naa fi jóge defuma fi dara du ma fi nekk jaamu kenn dee ma gënal nekk jaamu Macky Sall nekk jaamu sëriñ du ma jaamu benn sëriñ jaamu ma jaamu ma kenn xeex rek xeex rek ba keneen mooy dugg bàmmeel ci loolu laa leen di woo leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen bàyyee jiji xam naa moom su ma noppee mu ma dugg nag ci débat wu personne gis naa ngeen bind di tudd ay tur yooyu yëpp amuluñ njëriñ parce que fi ñu toll ci réew mi li ñuy wax ak situation réew mi dafa weesu ay jëmm am na jëmm yoo xam ne duñu jëmm dara tojuñu fenn ils ne sont pas investis d'une mission de service public faluñu leen amuñu xam-xam ñu dund ajul ci ñoom ñooñee jëriñoo tëdd fii yéen a ngi bind mooy ñi may wax ne ñooñee jëriñu wax parce que dañuy yàq nañu xam nga maa ngi wax sànq énergie di wax égrégore di wax yu bëree bëri bëri yooyu nag bu ngeen ko déggee war ngeen a xam na ñun war ñu yàq suñu ay énergie war ñu yàq suñu temps loolu ñu yàq suñuy wax ci waxi kasaw kasaw dañ ko war a jublu ci li nga xam ne mooy lu fondamental mais les questions et les sujets subsidiaires mooy li nga xam ne waxi kasaw kasaw la loolu amaluñ njëriñ yàq suñu temps ku bëgg a dem dem ku bëgg a toog toog nit ki am na liberté am kenn ku ci nekk yaa sa bopp ci bëgg a ànd ak sonko ànd ak sonko ci bëgg a bàyyi sonko bàyyi sonko kenn ku ci nekk yaa sa bopp bu ñu jugé ñi dem ak ñi toog nit ñi kenn moomu leen kum neex toog kum neex dem yow kay yow li nga nekk yow fexeel ba nekk ci rek li nga gëm yow fexeel ba di ko dundal kum neex ànd ak Sonko kum neex ànd ak Macky Sall kum neex ànd ak ku neex man du ma jugé kenn ku ci nekk am na droit def lu neex waaye daal leen xam naa ko mooy at mi ñu nekk atum 2022 mi at la moo xam ne c'est une année de renaissance foofu laay daanele c'est une année de renaissance at la moo xam ne li war a leer yëpp dana leer li war a lëndëm fa lay doxee tàbbi géej at mi wala ñu ko genn waxon na leen ko ci ñi may top na la wax parce que man amna ño xamne duñ ma top amna ño xamne ba ma tambalé ba légui suma ma seen tànk sama tank ñom limay wax xamnañ ko at la mo xamne du jeex tay yu bari leeru lu bari da la leer nim at la tax ma wax ko nak ci tax mo wax ko na leen ko mësa wax ci biir at ni bala at me dé na ngeen mako fatali na leen ko wax li tax ma wax ne at ni du dé 2022 bi te lu bari leeru bala at me dé su ma ko fàttee na ngeen mako fatali bëgguma leen ko téla wax parce que at ni jeexagul damay bàyyi ba at mi waaj a jeex ngeen fàttali ma ko ma wax leen li ma wax fan laa ko teg donte waru ma ko wax sax ndax am mbóot la loolu waru ma ko wax wóorul sax ma wax leen ko su ngeen ma ko fàttaliko ndax maa ngi wax rek ba nar a jéggi xob waaw te ñoqale nag ci garab baax na de waaye booy ñoqale ci garab na nga fexe bay tegu ci ay cer cer nag buñ ko waxee mooy branche waaye ñoqale ci garab ba tegu sa tànk ci aw xob kenn du ñoqale ci aw ca garab ba ba ba teg sa tànk ci xob booy ñoqale ci garab da nga koy teg ci ay cer ndax cer moo gën a dëgër aw xob car mën na laa téye waaye boo ñoqale ci garab ba teg sa tànk ci aw ci aw da ngay detteelu xaw naa detteelu léegi maa ngi wax wax ba naan danaa wax am na loo xam ne ko wax kon maa koy tuub sax waaw kuy boo ñoqale ci garab di escalader dans un arbre il ne faut les branches euh, les feuilles il faut les poser sur les de tomber waaw ñoqale ci garab da ngay fexe ba teg sa tànk yi ci ay car te bañ koo teg ci aw xob ndax car moo gën a dëgër xob boo tegee sa tànk ci xob da xam ne lépp dëgg la waaw est-ce leer na kon jiji ma bàyyi la kon nga nga noddu ndax dégg nga maam timis yaa ngi waaj yot ñu la xam ma bàyyi la kàddu gi ñu ngi leen nuyu yëpp ñu leen ziar dee de ëpp naa def wax nga dëgg de dee teelu waaw am na na na nag lu xam ne xam naa léegi boo waxee jolof il faut que il faut que wax yooyu yëpp nag boo di seexanta jëm di wax rek yun yëpp yu ñu war a jooyanti la waaw nga nek olof namp jolof waaye dem ba yow Amna na yenn yenn jolof bu ñu ko waxee nga waa kii lu muy wax te yow nga olof nga léegi il faut ñu la ko ci tubaab pour nga dégg man ni ma déggee tubaab non la déggee olof olof la gën a dégg tubaab ah ah tubaab bi dama ko jàng denga nga pek. peeg ko pek ko peeg Wa anglais bi pek pek lu ma Pek pek peeg tubaab peeg peeg anglais bi nag ah taxul ba sànni sama wolof bi de sama bàjju bii sama bàjju bi foo ne mu ko yóbbaale ndax mooy sama moy sama moy sama tak ndeer olof ah dama ko namp ba saf ci sap sap sap sap bu ma dem kay mom bo ma nee nii ma ma ma la ah wa bolof la de jël tek ci ko table ci ah mo ne tubab nga ma wala falal ma ma la ah wolof nga bëgg acca bisimilaay ah waaw ah, man paaka fukki bor la paaka fukki bor la waaw ni da ngay xam sa bop man sa bop mom sa bop ba nopi nak jóg dox deggani mbiri jambur xam mbir jàmbur man mbiru jàmbur waaye nag da ngay man sa bopp njëkk de xam sa bopp xam sa cosaan xam sa aada xam li nga namp li nga namp ba gàll ko ah nekk boo gàllee war nañoo xam li mu namp lan la xam nga namp moom kenn du xam lu ni di namp kenn ku nekk booy namp sa weenu ndey kenn xamul li nga namp lu mu doon waaye boo gàllee rek ñoo xam li nga namp lu mu doon moo tax gàll dafa am solo moo tax gone bu gàllee rek ñoo xam li mu nam gone nag mooy gàll waaye boo demee ba nekk mag dootoo gàll gàll gi mooy wax kàlla voilà kàddu yi génn gi sa làmmiñ ak taxawaay ba jëf ji loolu mooy gàll gi moo tax képp ko gàll rek ci mag mooy gone mooy gàll waaye mag du gàll waxin la mhm. mag moom gàll gàllu mag mooy mooy mooy mooy mooy na muy dunde mooy kàddu ya mooy jëf ya mooy taxawaay ba mooy pas-pas ba mooy conviction yi mooy lii lépp loo xam ne da nga maam pastif ga mooy pastif ga rek waaw loolu moom ci meew lay jógee deret meew waaw loolu moom ci meew lay jógee ndax saa neex ko saa nee na nee na nee na meew du caaxaan xanaa xa ko waxoon meew du caaxaan ñu ne ko xam ah, ne waaw mu ne toqantal ah toqantal du caaxaan walaay mag ñi rek ñoo xam ne toqantal waaw toqantal ndox toqantal mooy boo juddoo rek da nga maam liggéey meew maanaam namp gi nga njëkk a namp loolu du meew nga jigéen ji wasin namp gi doom njëkk a namp kooku loolu du meew loolu leneen la loolu lañ loolu ngay njëkk a nàmp ci sa weewu ndey loolu toqantal kooku ay vitamine la kooku ay nutriments la kooku kooku mooy ADN bi kooku ci la ne moo tax loolu ku ñu ko xañ rek bu si wam mo kooku kooku kooku dafa am am am solo nàmp gu njëkk gi nga nàmp gi sa weenu ndey kookoy kookoy toqantal ci ngay nekkee jaam ci ngay nekkee gor ci ngay nekkee sàcc ci ngay nekkee agresseur ci ngay nekkee fenkat ci ngay nekkee faux marabout ci ngay nekkee féticheur ci ngay nekkee lu ne waaw ndax men meen dafa foor meen mooy deretu ndey dafa foor mhm. Mhm. di nuyu waa maajoor yi nekk ci biir ñoom gelawaar ak ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar di leen jox seen ñoom xam nañ xam naa li may wax ñoom xam nañ li may wax ah lu xale di lu xale di nàmp la too xam te ko <laughs> waaw nga dégg de bilaal ñaan nga dégg de lu xale nàmp rek lay too xam te ko waaw xale du fenn xale moom li mu ko dong lay too xam ah jiji waa ana jiji ah jiji waa ma bàyyi leen jiji kon yaakaar naa doyal ngeen sëkk nag tey ma bàyyi leen jiji jiji jiji waa loolu moom loolu dama la koy bàyyi léegi léegi bind moom dama la koy bàyyi foofu moom yaa ma fa man foofu moom yaa ma fa man naa la bàyyi lacrymogène yeeg liif yeeg duma yeeg yooyu moom yaa ma fa man yooyu naa la ko bàyyee <laughs> ah waaw gëm leen seen bopp wala seen bopp yàlla wallahi azim bu leen xeem seen bopp de bu ngeen dëggalee seen bopp rek yàlla def si yéen mbir waaw nit du suufe boppam bu leen wàcce seen bopp bu leen xeeb seen bopp seen dëggal seen borom wul leen yàlla di ko jox li mu moom ci yéen tey sàkku ci moom li ngeen moom ci moom bu ngeen ko defee rek mu def ci yéen moom yàlla waaw bu leen jombal seen bopp dara ci diggante seen borom ndax bu ko Seydil Hadji Malick defoon du am daraja ji mu am ci yàlla bu ko ala bu ko mam borom tuba defoon du am daraja lii ma def dong la ñu def de wul yàlla nekkal ko rek wóolu leen seen bopp wóolu yàlla gëm ko kennal ko nekkal ko lu ngeen bëgg ci moom ngeen ko ko sàkku te muy seenu njiglaay mu defal leen ko loolu moo tax mu defal mag ñi ngeen bëgg ba jël leen teg leen foo xam ne dégg nga moom fu kawe la la ñu defal yàlla moo tax ngeen def ko loolu na yàlla dafa loolu loolu mooy xeeb sa bopp ak ñàkk xam yàlla ak ñàkk wóolu yàlla yalla man na la may lu ëpp li may Serigne Touba kala djimari yalla man nako ndax yalla man na la may lu may lu kenn ndax yalla lim mu du jeex te lim man amul kenn kuy tee xop kon kay yow sabab lu rek te wóolu ko waaw. wa ñooñu ñoo wa wa ar senegal wa ar mak ñooñu ñooñu ñam duma ci wax ñooñu bokku lek sujet bi tey ba daal nañu taxaw temm juk taxaw xex buñu ko deful gannaaw suba ben lak ni nga ñewat bu ñu ko deful gannaaw suba ay accident ngi ñëwaat bu ñu ko deful gannaaw suba yeneen a ngi ñëwaat hôpitaux yi dara baax dara ba dara boo doo jeex baaxut sama rak génn na àdduna barki démb ñu bari woo ngeen ma di ma jaale accident la def ci yoonu Mbour bëgguma ci woon wax parce que bëgguma wax ci làmb sama famille ko man wax ci ñëpp waaye comme dañuy wax ci hôpitaux yi may naa ko ci wax c'est la ko bëgg a def ñu bari wax nañ moom tax waxoo ci su may bind sax du ma wax ne am na loo bokk sama frère dee na barki démb patriote dee goo xam ne négligence moo ko rey négligence ah accident la def mais du ko ku accident rek dee accident bi mu def mënoon nañ ko sauver waaye négligence non assistance à une personne en danger neuf heures et demie nga accident ba treize heures quarante kenn laalu la ñu taxaw di la xool ambulance yi deux heures de temps muy soog a ñëw ñu yëkkati yóbbu hôpital ba trois heures de temps médecin yi nekk ko fa ñuy taxaw di xool muy sañe di sañe di sañe ba amatul deret di nàcc di nàcc di nàcc di nàcc ba deretam jeex takk takk takk takk lii moo ko rey deret du jeex ci hôpital bi tax taxaw di ko xool ba mu dee seen loxo lii moo ko rey hôpital Mbour loolu ngeen tudd hôpital du hôpital nekk Mbour du hôpital di dëkk bi toll ne Mbour la fa nekk ci ay hôtel la fa nekk ci jën la fa nekk ci richesse la fa nekk ci ay économie la fa nekk yëpp mënuñoo am benn hôpital bu baax Tivaouane ngeen wax parce que ay xale ñoo fa dee mais li am Tivaouane moo am Touba li am Touba moo am Mbour moo am Dakar moo am fépp maanaam lii xew nii du Tiwaawan képp de Sénégal ci boppam moo amul hôpital bu jag te kenn du ko wax Macky Sall la ko tey Tiwaawan a xew na tey de waaye Sénégal gépp foo ci dem hôpital yi c'est des mouroirs dafa xew la rek te ku aalee ku aaye wal sa moom tey Tiwaawan a aaye moo tax ngeen ci wax mais li am Tiwaawan moo am ci Sénégal gépp amu ci benn hôpital bu baax parce que ñu ci alal ji génn ci réew mi alal ji ña koy tuxal nekk seen bopp accidenté sa tank, sa benn organe vital accident bi lu ko du sa cœur du sa bop sa tanki auto bi la fël ci sa tanki la jaar broyer sa tanki ñu waxon la amputer yobul le bloc amputé le en urgence ko laaje wala ñu jël le en urgence ñu bàyyi le pendant 4 heures de temps ngay sañe ñu taxaw ñu ñu la romb dama ko ñew nga vider sa sang sa yaram nga vider ba amato deret di xëccu di di di sa kër bi di sa kër bi di kër bi di di di di riir ngay crise ba dee seen loxo ci romb la dem seen yoon xam nga loolu moo ko rek bëgguma di génn sama ay sentiment di wax li may yëg sama xol parce que man waruma faiblir mais war ngeen a comprendre ne voilà mané hôpital yi juma yi sen jàkk yi ngeen ni dali sama ko di riir xamu leen la xew du ngeen ay nit wallahi du ngeen ay nit xamu leen lan mo hôpital tabax hôpital mo gëna nek fa tabax juma xana xamu leen lolu tabax am rew wala ab dekk ba dekk bi daj ay nit dekk fa ñu ñu ne benn place lañu am dañ fay juma lañ fay def wala hôpital juma ba def fa juma bi mo gëna def fa hôpital bi mo gëna nek fa def fa juma xana xamu leen lolu parce que déggu leen diine hôpital moo gën a nekk farata juma xanaa xamu leen loolu mais yi parce que ay làppata ñoo leen jur ngeen nekk ay làppata te ay làppata ngeen jur moo tax xamu leen le sens des priorité déggu leen diine ay nit ngeen gëm ay sant ngeen topp xamu leen yàlla. may may tàngal parce que j'aime pas parler parce que boobu léegi waxuma ci parce que bëgguma ngeen di xam samay biir daal samay naqar rek sama yooyu parce que. bo jërë leen jëf yéen ñi gëm yàlla wóolu ko jox seen bopp yàlla yal na leen yàlla sàmm ñi gëmul yàlla nag wóoluwuñu yàlla yàlla na yàlla rocci see loxoom ak mbiram ak lépp na ko rocci seeni mbir bàyyi leen ak ñi ñu gëm képp ku nekk gëm yàlla na yàlla rocci loxoom ca yow bàyyi laa kooku képp ku gëm yàlla nag ànd ak moom wóolu ko te muy dëgg ci yow yàlla na yàlla gën a dëgëral taxawaayam ca yow mii yàlla na la yàlla aar yàlla na yàlla musal ci lépp luy lore yàlla na la yàlla yëkkata kullu daraja yàlla oyofal sa lépp fii ak fële képp ko nag koo xam ne gëmoo yàlla wala am nga lu gën a rëy yàlla wala ab yonantoom ak yooyu ba topp kookee ba mën a xeexal kookee mën a mën a rayantàngat kookee yàlla na yàlla seppi loxoom ci say mbir bàyyi laa kookee waaw kenn ku nekk la mu bëgg la nga ko ñaanal loolu mooy ak maanut voilà jox leen jëf ci njaal mi condoléances yéen ñëpp du dee gi moom moo métti dee moom ñëpp a dee waaye moom dafa waroon dund moom waru woon dee waaw dafa waxoon dund waru woon dee parce que amul woon lenn lu tax mu war a dee bu doon ci dëkk tubaab yi dëkk yi normal yi dëkk yi nga xam ne amuñu ay làppato kooku du dee dañ koy amputé wala ñu jël ko en urgence au bloc du dee parce que accidente toog toog lu mat quatre heures de temps quatre heures de temps toog di xaar ñu jël la en charge jël ñu la en ngay saigner di couler sa sa deret bi di couler di kule ba amatoo deret nga dee kooku manque de manque de sang deret bi di couler ba jeex moo ko rey mooy du accident bee ko rey kooku warul woon a loolu du ndogalu yàlla loolu nit ñee ko def loolu yàlla yoonam nekku ci nit ñoo ko rey ñu ñuy fay ñu nekk ci hôpitaux yi jël suñu budget dugal fa wala boog ñu dugal fa tuut ñoom ñu dem tëdd seen kër yi nit ñëw accidenté ñu war ko jël faj ko ñu taxaw di ko xool ba mu dee deretam di tuur ba jeex ba mu dee kooku dañ ko assisté wul kooku ay nit ñoo ko rey yoonu yàlla nekku ci moo tax duñu leen may jàmm dañuy xeex ñun dañ ko xam ba ñuy xeex yu mel nii moo tax ñuy xeex dañu yàgg xeex pour lan pour nit ñi mën a dund waaw bu nekkoon ci dëkk tubaab du dee amul mënut nekk du dee jamais Sénégal ngay accident ñëw sa tànk am problème sa tànk tànk kan mooy dee ci accident tànk tànkam moo am problème fracture yeeg ouverture yeeg saignement yeeg yooyu képp ci la dee loolu xam nga logique donc li ko rey mooy perte de sang sang bi doon couleur arrêté wuñ ko opéré wuñ ko ci saasi moo ko rey muy loo xam ne du ma ko baal Macky Sall du ma ko baal kilifa yi fi nekk du ma ko baal kenn damay xeex ak ñoom ba ñu rey ma wala ma rey leen parce que du ñu ay nit xeex rek man oomu lu may bàyyee kenn yàlla ak di bëtt samay bët di jooy ay yàlla ak di dogal yàlla man nekkuma ci yooy man sama yàlla moom xeex la ma jàngal damay xeex ba dugg baat vocal ñoom ak man ba bat zàq dara may ngeen jéggal ma parce que bëgguma ci woon wax ma vie privée mosuma wax ak yéen loo xam ne man la làmboo li may wax ak yéen yëpp mooy li ñu bokk mais non je m'excuse